يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وبسبخة ما اكتفى من الألوم أنت الخبير والكبير والعليم وتغننا بك وبالمشفع عن كل سالم وكل مدفعين وجلت والبي من المرسلين وبدني شيء وخلبي أرسلي أقد ثمانية بيت بزمان بلا إخالة أتت لزمان يا من مداد جاتك كدما من قضيد من القدماء إس صلوات جالت تاويه hani ma biir li daaka aawiya bii wax jëla siyoo fii bi ma maddatu illa ya yaasa sama illa ya xutta barakatillahi yaa man asantani bihi min lay selli salaatan kula faasidin tasuux li xiiri saati liya tuddiimu rib u suux bismillahi rahmaani rahim xabli safinatan bi kullil janna min daaratil minna niyaasal minna ginnaaw bi nu sante yàlla sunu borom noo ngi julli ci sangi sangi seyduna muhammad dellu di sant sunu yaakaar ji di sëriñ tubaa xaadim rasool tey ñaanal Serigne Touba Cheikh Mountakha Bassir yal na fi yàgg ci ca ànd ak wér ba naal yi mu naalal lislaam naalal ko Serigne Touba mu àggale koog sagom te nu ànd koog moom téeméeri at yu tàmbali tey yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def naka noonu ñu koy ñaanal sunu mboolem kilifa yépp ak bépp kilifa diine ak bépp jullit bi sol sa daal di dox te lislaam rekk tax di siyaare bu baax mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bii di ci jiital sëriñ maam Thierno Mbacke mi toog moom Cheikh Mouhamadul Muntaxa ginnaaw bi nu ko siyaare te dalal ko ndokkeel ko ak rakam yu baax yi mu àndal yëpp nuyu Serigne Fallou Mbacke Abdou Latif incha allahu mboolem kilifa yi fi teew yëpp alaaji Seydou si dana ci ñëw de présentation bi monsieur le maire Abdou Lahad Ka ñoo ngi koy nuyu di ko siyaare bu baax nuyu sëñ Mourtala Lo ak délégation bi mu àndal ñuy siyaare bu baax. sunu mbokk yi nga xam ne noo bokk ak ñoom liggéey bi muy waa isbu tarxiya jëwriñu Yuusu Jóob sëriñ Babacar Diallo ngi nii toog ak sëñ Mourtala Sey ak sëñ Lamine Diouf kon dañuy daal dugg ci liggéey bi woo alaaji Seydou si mu ñoo def présentation bi waaye alhamdulilah rabbil alamin daaw géej lañ ko njëkkoon def wax ni yàlla na nu fekkee déwén daaw ñu teewoon fii ñaan yàlla fekkee ren yàlla nañ ko teewaat téeméeri at yu tàmbali tey bis bi sabab bi dara waru ko lu dul fondation Soxna baal Baali action sociale yi nga xam ni at mi mën naa ne yëpp ci leen dëkk waaye saa weeru koor jotee nag dañuy def journée internationale sociale muy bis bii nga xam ni lenn rek lañ ci def mooy dajale jullit yi daara alxuraan yi ñu seen loxo jotu seen ginnaaw ñi am wéradi xel ak handicapé yi hôpital yi crèche yi ak amicale yi ñëpp bu nu dajee fondation Soxna Baali yëkkati ay ndimbalam ak ay jàppaleem jëme ko ci ñoom kon bisimilah ñu tàmbali liggéey bi yéen ñi ci biti baas bi ñu dugg ci biir baas bi toog kon alaaji Seydou si bisimilah. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi. noo ngi leen di nuyu di leen ziyaar. di jiital ci sunu nuyoo ak ci sunu ziyaar xalifatul am cheikh mouhamadul muntaka xalif général kullu murit yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ba naal yi mu naalal maamam ju baax ci cheikhuna ahmadul xadim mu yeggale ko tannoo ànd koog moom ci barke cheikhuna ahmadul xadim nuy ziyaar bu baax itamit soxna su yàlla baaxal si muy jigéen ju tedd jigéen ju yiw jigéen ju baax jigéen ju bëgg lu baax muy soxna Bali Muntaxa soxna baali Bali yi Soyibu borom fondation bu rëy bi fondation soxna Bali Muntaxa tey jii ñu dajawaat fi di def don yi nga xamante ne at mu ne nii la koy defee muy action sociale bu am solo ci réew mi ak bitim réew muy fondation soxna Bali bi nga xam ne mooy def tey journée sociale soxna Bali yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak ba naal yu rëy yii mu naal. di ko liggéeyal maamam ci action sociale mu yeggale ko ci barke xaadimal Mustafa te nu ànd ko ak moom nuy ziyaar bu baax ki nga xam ne tey moo fi teewal baayam ju baax ji muy la xalif général kullu murit muy sëriñ ko Koso Mbàkke mu baax mii jëre jëf ci sa teewaay nga teewal fi sa way juru baax yal na yàgg lool ci ànd ak wér noonu la nuy ziyaare tamit sëriñ Fallou Mbacké moom sëriñ Moustapha Bachir mi nga xam ne fondation bii muy fondation Soxna Baali Muntaxa moom mii mooy jëwriñu liggéey bii di jàmbaar lool di borom pësseef di ku taxaw liggéey bi waaye ku jàpp liggéey bi sëriñ Fallou jërëjëf Mbacké noo ngi ziar bu baax i tamit sëriñ Modou Rokhaya Mbacké moom sëriñ Cheikh Astou Fall noonu la ñuy ziaree tamit sëriñ Abdourahmane Mbacké moom Cheikh Mouhamadoul Muntaxa waaye di ziar bu baax sëriñ Abo Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Mountakha noonu la ñuy tamit sëriñ Mountakha Mbakke moom sëriñ Moustapha Lakaram moom it teew na fi waaye di ziar bu baax sëriñ Fallu Mbakke moom Cheikh Abdou Latif Mbakke noo ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax di la di ziar bu baax sëriñ Moustapha Mbakke moom sëriñ Mountakha ak sëriñ Isaaqa Mbakke moom sëriñ Moustapha Bachir. ak sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Modou Boussa Dieng noo ngi koy ziar di ko jox wàccuwaayam di ziar bu baax délégation bi nga xam ne mooy délégation monsieur la maire de la ville de Touba di jàmbaari Cheikhul Khadim muy le maire Abdoulahat Ka taalibi Cheikh Abdoulahat nee naa ko mag ñi ñoo la wóolu mag ñi ñoo la tànn mag ñi ñoo la doyloo dalalal sa xel jàmbaari Serigne Touba la mag ñi ku ñu wóolu mag ñi ku ñu tal mag ñi ku ñu doyloo da nga jëm ca kanam da liggéey loo xam ne mag ñëpp seen xel dana ci dal waaye seen xel seen i bët dana ci tegu mooy le maire Abdou Lahad maire de la ville de Touba noo ngi lay jox sa wàccuwaay monsieur le maire. bi muy ñëw ànd naag délégation bu mot délégation Serigne Mourtala loola àndal bi muy ñëw ak Serigne Ishaqa Mbacké ak sëriñ Moustapha Misra ñi nga xam ne ay conseillers am lañu ñoo ngi leen di jox seen wàccuwaay ñoom ñëpp. noo ngi ziar bu baax itamit délégation bi nga xam ne ñooy délégation bu bàyyikoo ci waa bu Hizbut ya te sëriñ Youssou Diop jiite ko. nga xam ne liggéey bi da koy yokk waaye wàññiwu ko te jëmale na liggéey bi kanam ñuy ñenn ci biir fond de fondation bi ki jiite délégation is bu Hizbut ya mooy sëriñ Mourtala Sey ak ki nga xam ne day doomi kër gi mooy sëriñ Babacar Diallo moom Cheikh Mouhamadul muntaka sëriñ Babacar Diallo moom soxna Bali Mountakha ak sëriñ Lamine Sey noo ngi leen di jox bu baax a baax seen wàccuwaay noonu la ñuy siyaare yi tamit sëriñ Mourtala si moom Cheikh Mouhamadul Mourtada ak Cheikh Mohamed Diaw ak Alhaji Ibrahima Niass mu teewal fi le PDG ah Babacar Biteye Demba bi Bitèye directeur général bu Sénélec di kenn ci Soxna baali waaye di kenn ci Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye di kenn ci fondation bi le PDG bi tey noo ngi lay jox bu baax a baax sa wàccuwaay noo ngi jox wàccuwaay bu baax Serigne Ndiaye Diop chargé de mission moom it teew na fi sëriñ Cheikhouna Seck taqe moom it teew na fi sëriñ Jili Ñang kennal sëriñ Touba moom it teew na fi sëriñ Malick Sy bokk ci waa kër sëriñ Malick Bassine Sy moom it teew na fi sëriñ Abdoulahad Ka bokk ci waa kër sëriñ Moussa Ka moom it teew na fi sëriñ Youssou Dieng moom soxna Njaaya moom Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké moom it teew na fi sëriñ Mbagnick Jo Ndiaye di rakki Aly Ngouille Ndiaye le PDG Mbagnick Ndiaye moom it teew na fi di kenn ci Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye di kenn ci soxna Bali Mountakha sëriñ Bañik ñoo ngi lay jox bu baax a baax sa wàccuwaay waaye nag moo ngi feggoo koo xam ne day kenn ci moom muy le PDG Mountakha Guèye moom Cheikh Abdou Samad Guèye noo ngi lay jox bu baax a baax sa waay am na délégation bu fi ñëw yi tamit muy délégation Touba ca kanam sëriñ Mafari Ndiaye moo ko jiite ak sëriñ Moustapha Dieng. ñoom ñoo jiitee délégation Touba ca kanam waaye noo ngi jox bu waax wàccuwaay ki nga xam ne mooy Serigne fàllu gay di mbokkum soxna baali waaye di responsable politique ca Dakar ca Pikine noo koy jox wàccuwaay muy kenn ci soxna baali jàpp lool soxna Bali waaye bëgg lool soxna baali waaye fonk ko. am na sunu partenaire boo xam ne moom it dafay ñëw di kenn ci fondation Soxna baali ñuy jàppale lool fondation bi muy projet ONG. Al-Hatta directeur vice directeur bi ñëw na muy projet ONG al ki ko jiite mooy Mohamed Naji Mohamed Naji nag ñoo ngi lay sant bu baax a baax ndax yow jàpp nga bu baax a baax ci liggéey bii nga xam ne mooy liggéey fondation Soxna Bali Muntaka bi ngay ñëw Mohamed ànd nga ak une forte délégation yaa ngi ànd ak Serigne Sidi Mukhtar Kunta Kunta Sii bi noo ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax waaye bi ngay ñëw tamit ànd nga ak Serigne Moustapha Cissé ñu bokk ci ONG bi di la jàppale ci ONG bi yaag directeur général bi noo ngi leen di sant noo ngi leen di jox seen wàccuwaay foofu lay daanelee sama kaddu ba ci kanam yeneen délégation yi nga xam ne dañuy ñëw bu ko defee ñu tàbbalaat ko ci liggéey bi di santaat bu baax rek sëriñ moodu Cheikh Abdou Samane Mbacké moom Cheikh Sidil Mukhtar moom it teew na fi borom ngànna ñoo ngi koy jox bu baax a baax waayam di sant bu baax soxna Baali Muntaqa ci soxna Baali soxna Baali Cheikh Sohaybu bu jàmbaar ji ki nga xam ne léppam def koo def social nee naa ko soxna Baali da ngaa baax di woote tey social waaye yow at mi de social nga ciy def at mépp social nga ciy def bis boo yaa ngi xool jaami yàlla yi lan moo leen di bégal bis boo xëyee yaa ngi xool jaami yàlla yi lan moo leen di dimbali bis boo xëyee yaa ngi xool jaami yàlla yi lan mooy faj seen aajo soxna Baali Cheikh Sohayb soxna Baali Muntaqa soxna Baali borom fondation bu rëy bi soxna Baali luñ la sant doyul yow mii Serigne Habib Mbakke Serigne Abo Mbakke mu Serigne Modou Habib moom it teew na fi. dégg nga ba tey nee na mbokkam yi nga xam ne ñooy mbokki. mooy waa kabbu ci njiital sëriñ Fallou Gaye ñuy mbokkum soxna Baali Muntaqa ñoom ñëpp teew nañ kuy dem ànd ak say mbok sa xel war naa mën a dal soxna Baali mbokkam yëpp teew ku rek teew na tey jii ndax lan melow soxna Baali ndax lan jikkooy soxna Baali ndax lan yërmandey soxna Baali Muntaqa soxna Baali yàlla na fi yàgg te wér soxna Baali yaa sagal lislaam waaye soxna Baali yaa sagal sa yoon wii muy yoonu seexu axnaa seexu naa ahmadul xadim sa yoonu maam ju baax ji Serigne Touba Xaadimu Rasuul soxna Baali jërëjëf Mbàkke lii xool leen jotaay bi xool leen li ci biti xool mën di soxna Baali amal jaamu yàlla ak lim leen ëmbal bëgg leen rek dimbali ci jëmmi yàlla rek tax nee na jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ci laay xëy ci laay gont at mépp ci lay ne at mépp ci lay ne soxna Baali yàlla na fi yàgg te wér sëñ Moodu Maamul Loo Gaydel kaddu gaa gi alaaji Seydou si xam naa ni ku lim sax doo juum waaye danga dul matal waaye incha allah nagam yaa ngi big yor kayit keneen ku ci dolli ku danañ la ko wax nga bind ko koo xam ni ci liggéey bi nga bokk te gis nga ni am na ku nu fàtte war koo tudd nga ñëw dee ko alaaji Seydou si ñuy sant bu baax DG Pape Demba Bitèye bu Senelec di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam biig rek sëñ Moussa am sëñ Lakaram woote na di wax ni DG taxawaayam ci bis bi ak yéeneem ci soxna si dana yebal une forte délégation te ki ko jiite toog nii nga xam ni moom boo ko xoolee mu toog rek da ngay xam ni moom moom la turandoom ne woon jaxaltu ko yaa xeeral anaami safiran kulla zaman at xaaka mujiran muy Cheikh Ibrahima Niass moom nag Kaolack la jóge tudd baay di sant Niass mi ngi nii toog noo ngi lay siyaare bu baax di la jox di sa wàccuwaay di ñaanal DG yàlla guddal fanam wéral cëram moom doomi sëñ mun la kenn la ci kër gi saa bu nu gersoo gis ko ci lépp noo ngi koy sant di ko gërëm bii wax naa ko sëñ Moussa Abdoul Karam ma ne ko sa xarit bii dafa baax am yëg ba noppi yaatu te lu nu xewle saa bu nu gersoo gis ko yal na yàlla yàggal taxawaayam kon nag pour gagner du temps ñu jël kàddu jox ko ki nga xam ni ma alaaji Cheikh Diop nga xam ni moom benn yitte la am muy sëñ taxaa xëyeeg mag gontam génnul sëriñ bi sëriñ bi yëkkati ko teg ko loxo soxna Baali ne ko li ngeen bokk yéen a ko bokk ca kokki muy sa mbokk di sa lépp daan ne soxna Bally bi sikki tey dénk naa la Cheikh Diop Kokki boobaa tey Cheikh guddeem ak bëccëgam fanaanam yandoom lépp da ko tàmbali soxna Bally yemale ko soxna Bally mooy dem ci télévision yi mooy dem ci mission yi di def taxawaay yi di jëf ay jëfi social di taxawu ci biir di taxawu ci bici te wax boo koy wax yow mi koy wax xam ni li ngay wax dëgg la mbooloo mi ko teew xam ni dëgg la moom mi ngi koy waxal xam ni dëgg la kon loolu ñëpp dañuy xam ni dëgg la kon El Hadj Cheikh bu vous avez la parole. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaam ala wa ala wa sahbihi wa sallama ginnaaw bi ñu sante yàlla julli yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñuy wax asalaamualeykum wa rahmatullah wa di nuyu sunu sëriñ sunu kilifa sëriñ Thierno Mbacke di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di rafet lu baax a baax teewaayam fii di nuyu monsieur le maire ak délégation yu fi teew yëpp. di leen nuyu di leen ziar waaye dañu bëggoon ñu baal ñu tuuti discours bi nga xam ne préparé woon nañu ko da ci am lenn yoo xam ne suñu ay partenaires yi nga xam ne dañoo déggul kàllaam wolof te lii dañ koy jël di leen ko yóbbul moo tax ñu bëggoon ko def ci ñaari xaaj benn bi ñu liir ko ci nasaraan après ñu tekki ko ci wolof ñi ngi fiy jéggalu bu baax a baax donc mën nañ commencer discours français bi donc en ce jour béni du mois de Ramadan de l'année 2023 la fondation Sokhna Bally Mountakha Mbacké fidèle à la mission pour laquelle elle a été créée avec la bénédiction de notre vénéré guide Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké khalife général des Mourides va sacrifier à sa traduction en portant assistance aux daara, aux mosquées, aux lieux des privation de liberté, aux personnes diminuées et aux couches sociales défavorisées. La particularité de cette année, c'est que la Fondation Sokhna Baly Mbacké déroule ses actions caritatives après avoir obtenu de l'État du Sénégal accord de siège. Un acte administratif qui lui permet de se soustraire légalement aux exigences douanières et de pouvoir faciliter l'acheminement de matériel des divers dons destinés aux populations. La conséquence immédiate de cet acte fort de l'État du Sénégal en direction de la Fondation et qu'il va lui permettre d'élargir son rayon d'action, de diversifier son intervention dans la claire perspective d'atteindre le maximum de bénéficiaires sur le territoire national. C'est pourquoi la Fondation adresse ses vifs remerciements à l'État du Sénégal qui a posé un acte fort à travers accord de fièvre. Pour cette année 2023, au-delà des denrées alimentaires composées de riz, de l'huile, de fibres, du pâte alimentaire, entre autres, la Fondation a reçu un conteneur avec des lots importants de matériel médicaux, de matériel médical, de médicaments de tout, de tout genre destinés aux structures de santé. Je profite aussi pour saluer Mohamed Dia, notre partenaire en Suisse qui est présent. C'est lui qui a démarché tout ça, il est actuellement présent. On a voulu lui donner la parole, mais Mohamed Dia ne veut pas aussi parler en public. On va vous excuser ça. Les médicaments, tous genres destinés aux structures de santé, aux DARA et aux populations défavorisées. Difficile à l'étape actuelle de ces activités de quantifier pour donner les chiffres exacts des produits et les montants globaux engloutis dans cette présente opération. Ceci est lié au fait que les dons de souscription de poursuivre au moment où nous tenons cette activité. Mais après, évalu après évaluation, les données chiffres seront disponibles. En perspective, la Fondation Sokhna Bali Mbaké, qui a son active la construction de trois forages, cinq mosquées au-delà de la ville sainte de Touba. Ambition de faire un maillage plus large pour à terme réaliser de nouveaux investissements à caractère social. Enfin, d'atteindre les cibles dans les zones les plus reculées des 14 régions du Sénégal. Donc, je vais aussi remercier la présence de notre partenaire Al-Atta. C'est un partenaire de taille qui nous a appuyés sur beaucoup de choses. Je vous nommer le représentant du directeur général, il est aussi présent. C'est là une ambition monstrueuse et difficile, diront certains, mais les difficultés de la mission sont prospectionnelles à la nécessité de réaliser les objectifs qui sont au cœur des préoccupations de la fondatrice Sokhna Bali Mbake Moutoukha. Puisse la sous la protection de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et avec la bénédiction de Serigne Touba Khadim Rasoul, qui nous a placés sous l'aile protectrice de Serigne Mountakha Mbacké, donner à la Fondation soxna Bali Mountakha Mbacké les capacités nécessaires à de sa mission kon mbokk yi ñi ngi jéggalu bu baax ki li nga xam ne yëkkati nañ ko dafa fekk ne dafa am ñoo xamante ni loolu lañ yitte woon pour man ko dégg ndax dégguñu kàllaama gi nii moo tax ñu tënk ko noonu ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay waaye di leen nuyu it turu soxna mun Mountakha Mbacké tey mi nga xam ne tey moo tax ñu daje fii fondation bi nga xam ne créé na ko kii deux mille dix-neuf ci lañ amoon décret de création bi ñu commencé liggéey ba deux mille vingt-trois lañ nekk ci lañ am accord de siège bi nga xam ne signé par l'autorité compétente loolu aussi dinañu permettre ñu gën a liggéey gën a jàppale it aussi néew gi doole yi nga xam ne moo taxoon tey mu créer fondation bi créer ko aussi pour jàppale daare alquran yi créer ko pour jàppale lépp loo xamante ni bii ay personnes diminuées la fu ñu mën a nekk ci quatorze régions senegal ñu fàttali na fondation bi mu juddoo juddoo na fii ci Touba waaye dafa judd pour Sénégal gépp quatorze régions yu Sénégal yëpp la ñu fas yéene liggéeyal te loolu sax am ngeen ci firnde suñu édition yi passé li nga xam ne defoon nañu ay action génn na Touba ndax bu ngeen fàttali ko daaw ci waxtu wi bi ñuy joxe ñeen joxoon am na ci lu ëpp ñeenti régions yoo xamante ni bii bokkuñu fii ci région de te ñoo ñëpp amoon nañ ci denrée yi ren nag li ci bees bi ñu koy def daaw ak ren am na ak yokkute ndax diggante daaw ak ren ku ne xam na ne ubbi nañ fii ñaari juma fii ki tuubaa te ñaari juma yooyu li ci gën a yéeme ci benn bis lañ ko ubbeendoo loolu ku ne xam ne liggéey bu rëy rëy la waaye loolu buñ ko amee dañ ciy sant suñu partenaires yi nga xam ne teew nañ Al Ataa ak ONG wax mi xëy na ñoom nekkuñ fi waaye suñu partenaire Al Ataa ku ñu jàppale la ci liggéey boobu noonu yamuñu ci ubbi ay juma bëtt nañ ay forage yoo xamante ni nekkuñu biir Touba mën naa cee tudd sax mbul kayel bu ma neexee ne forage bëtt nañ ko fa mu nekk ndox bu neex kon fondation bi jaadu na ñun ñëpp ñu ànd maase jàpp ci te ñaanal ko mu jëm kanam ba déwén nag bu ñu demee ba déwén incha bu ñu toogee fii di defaat joxewaat lépp luñ joxewoon ñu fukk tegoo ci fàttali ba ñu commencé ba tey lépp loo xamante ni bii jëf nañ ko ci liggéey bi jox ko néew ji doole wala ñi ko yittewoo lu ci ëpp soxna si la jóge ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale di ay partenaire dañ ci sant nag bu baax a baax son excellence le président la la république Alaaji Macky Sall cant gi lan la ndax fondation ku ne xam na ne décret présidentiel moo koy joxe te moom moo ñu jox décret bi ku ne xam na ne accord de siège pour nga am ko foog nga am signature ministre de finance signature ministre des affaires étrangères te loolu aussi joxe na ndigal ba def nañ ko kon loolu dañ ko ci sant bu baax di ko ci gërëm di sant nag bu baax a baax suñu partenaires yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ñu mën cee ràññee sama xarit bi dugg léegi ni Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba ñu ngi koy nuyu di ko ziar ku ne xam na ne moom partenaire fondation bi de taay la mi ngi koy dugal guddi ak bëccëg di ci liggéey di ko ànd ak ñun. waaye loolu lépp bu amee nag dañ ciy sant bu baax a baax suñu jëwriñ ki nga xam ne mooy yore liggéey bi jox ñu ndigal ñu ci doxal muy Serigne fàllu Mbacké Moustapha Bassirou moo nekk ci ginnaaw kenn gisu ko waaye lépp lu baax ak lépp lu ci dox loxoom la moom mii la mooy tracer feuille de route bi. mooy wax lan lañu war a wax mooy joxe orientation yi kon ñun du ñu si dara lépp loo xamante ni gis ngeen mu dox ci rek Serigne Fallou Mbacke Moussa Bassirou moo ko doxal kon dafay baax occasion bi mel ni bu amee ñu sant ko gërëm ko xam ne sëriñ bi lépp lu ko war si liggéey bi doxal na ko ba def ci lu kawe njot ci biir loolu it dañ ci sant bu baax a baax mbooleem ñoo xamante ànd nañ ak ñun liggéey bi di ci dugal seen loxo guddi ak bëccëg te loolu mënuma ko wax te tudduma suñu frère Abdoulaye Dia Sénico dugal na loxo mu baax a baax ci fondation bi ndax moom ku ne xam na ne taalibe la tey nitu alquran la fépp fu ñu jëfe lu baax dana ki dugal loxoom. kon loolu yamul ci moom dañ ciy santit mu le maire Abdou Ka ndax ceeb bi ngeen gis ci bit nii moom ci jëm boppam. jox na fondation bi 10 tonnes ceeb participé ko joxe ko kon monsieur le maire ñu ngi leen sant turu fondation bu baax di rafetlu bu baax a baax sa liggéey dina ñaanal suñu borom taxawala bu baax a baax ba li nga wut ci sa mairie bi yàlla kàtt na la ko nga gën ko rafetal. kon sant nañ bu baax a baax mbooleem ñi fi teew di sant presse bi di sant ñi nga xam ne yor internet yi ñi nga xam ne ñoo yore di relier Facebook bi YouTube ñu ngi leen sant yéen ñëpp. ak ñi nga xam ne ñooy nekk ci snap bi ñëpp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan bu déwénee jàmm bu ñu fa dajee lépp ñu def mu doon asakay li nga xam ne def nañ ko ren ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. jërëjëf Alaaji Cheikh Diop Kokki ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko. muy kàddu yoo xam ni ku doon dégg fondation Soxna Baali bu ñëwee tey ba dégg sa kàddu bu ñibbee tey buñ ko nee lan mooy fondation Soxna Baali bu waxee la Alaaji Cheikh Diop Kokki wax danañ xam lan mooy fondation Soxna Baali bi nga waxee ba noppi ñëpp xam nañ ni li tubaab wax ni ne considérez pas une personne à ce qu'il a dit mais regardez ce qu'il a loolu daa feeñ ci say kàddu nit melul ni mu wax ni mu jëf la mel. te wax ak jëf danoo xuloo wax ne ko fu ma yem na ko yàq jëf ne ko ma dikkee nga toxu te ki jëf ba raw la kooku mënoo wax ba dab ko kon pour gagner du temps ñu jox ki nga xam ne mooy le première magistrat de la ville de Touba muy monsieur Abdoul Ahad Ka maire de Touba jàmbaari Serigne Touba taalibeeb Serigne Abdoul Ahad moom nag ku ne xam na ni baayam léppam daarul moxti la waaye li tax ñu ne Abdoul moom mu seet Sëñ Abdou laat mooy bi Sëñ Abdou Lahad ñëwee fii ci tund wii nu toll fii nu ne nii di laaj fu mu bàyyee pël yi dañ ko ne kër baay wàqi képp nga mën a dem moom lañ gis ku fi am suuf sum la mën a jox kër bi Sëñ Abdou Lahad ñëwee baay wàqi da ko ne doomi Sëñ tubaa ne daa soxla suuf ne ko du ma yem ci suuf suuf seeg sama njaboot ak samay tool ak samay surga jëral lépp ma jox la moom mii gane àdduna baayam tuddee ko Sëñ Abdou Lahad fayee ko Sëñ Abdou Lahad muy xëy ci sëñ siit di gont ci moom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 di nuyu bu baax a baax a baax sëriñ Basiiru Xaadim Awa sama xarit ak si na léegi ak mbooleem njabootu sëriñ Touba gi fi teew kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant di nuyu mbooleem sama bokki taalibe yi ma fekk ak partenaire yi fondation bi nga xam ne jóge nañ ci gox yu bokkul ñëw fii ci bis bi ngir teewee bis bi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne mooy fondation Soxna baali Bali taxa di def te mu yaatu lool ci àdduna bi di ñaanal bu baax a baax xalif général des mourides mu yàgg fi te wér ak mbooleem njabootu Serigne Touba di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam moom mi ñu may ak man akam xel ak fekke ba ñu mën a yëngatu ci bis bii nga xam ne jëf fariwu ko kaw waaye nag du mbett ndax ku toll ni soxna Bali Muntaxa ku la jur sëriñ Chouaïbou ku la yar sëriñ Muntaxa defe naa ne loo baax doyul yaakaar naa ne am na lu nit ñi séenu ci yow am na fuñ lay xool ndokk bi fekkee bi xamee ne fiñ koy séenu ak fiñ koy xool moom ci boppam yéeneem ak pas-pasam romb na foofu loolu yombul ndax ñu séenu la ci barab nga romb fan lay seenu kat yombul maama ma ko defoon baayam def na ko sëriñam def na ko kon su ko defee wàcc na siggal na yoonu murit siggal na maamam siggal na baayam siggal na sëriñam waaye siggal na mbooleem bokki taalibe yi nga xam ne dañoo yaakaar Sëñ Tuubaa te gëm ko te bët bu sët ñu bëgg a gis lu leen doy te neex leen te lii bokk na ci lii nga xam ne doy na taalibe bu ne neex na taalibe bu nekk. dëgg kon su ko defee dañ koy ñaanal yàlla ko yàlla may fan wu gudd ak ak wér ba yéene ji mu am ci lislaam am ko ci yoonu mi am ko ci réew mi yàlla may ko kàttan ak am xel gum ko defee ak mbooleem ñi ko ci jàppale. su ma ci ja ñi ko jàppale su ma tuddee sëriñ fàllu rek ba sëriñ Moussa Bassirou tuddee sëñ Cheikh Diop Koki ëmbaale na mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi yëngu ci fondation bi ak. di ko doxal a ah, di xam na rek bi may ñëw nag maa ngi ànd ak Serigne Mourtala sama wëllëre ak Serigne Cheikh Mbacke solution fekk fi Serigne Isaaxa Mbacke ak Moustapha Misira ñoom ñëpp ànd na maa ñoom ci turu mairie bi ñëw waaye di xam le rek ne lii ma koy jox nag di ko dugal ci liggéeyub sëñ Tuubaa bi moom du alali mairie alali Abdoulahat Kala taalibab Serigne Touba. au boo xam ne dafay liggéeyal Serigne bi. loolu leer na de def ko ci waaye doon ne ab budget maire koy fay wala ci leneen moo koy fay. loolu il mu leer. ñi nga xam ne nag dama ànd ak ñoom liggéey bi ñii samay bokk di samay xarit di sama bokk taalibe ñu seq liggéey bi ma ànd ak ñoom ci délégation bi ñëw ngir fedd li fedd li kóllëre ak taalibe. ci diggante sama diggante sëriñ bi sama diggante njaboot ak sëriñ bi te ku ne njaboot ak sëriñ bi moom jiitu ci looloo tax muy nit ku baax ku bëgg lu baax koo xam ne man dama ne leen rek Soxna de moom ku ko ku ko ku ko bëggul rek da nga koo xamul waaye ku ko xam da ko bëgg wallaay dëgg ndax nit koo xam ne lu baax rek la bëgg lu baax rek lay def lu baax rek lay wax ku bëgg lu baax bëgg ko kon duma guddal wax di maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf monsieur le maire ci kàddu yi am solo yi nga xam ni yëkkati nga ko yal na yàlla yàggal sa taxawaay ak transparence bi nga xam ne leeral nga ko ci liggéey bi mooy li nga xam ne jëfi mairie la ak li nga xam ne Abdoul Ahad en tant que talibé Serigne Touba yal na yàlla yokk say xéewal yàlla sàmm la yàlla aar la noonu nga ko waxee léegi sëriñ Fallou Mbacke mu Serigne Moustapha Bassir noo ngi koy sant noo koy gërëm ci ay taxawaayam ndax mboolem njaboot gi fare ci soxna Bali moom ni mu def mooy la Serigne Saliou waxoon rek la ànd ak nun mooy la même bu ma leen jiitoo dama leen di xaar bu ngeen yéexee ma nag leen ba ngeen agsi su ma leen nagee gisuma leen ma dëpp jëli leen waaye dun tàggoo sëñ Fallou mooy jëriñu liggéey bépp moom moo sañ ni nañ def nañ dindi lu mu ne na la noonu la lu mu ne duna duna waaye daa jëlaat lépp delloo nu ko nu ngeen xalaatee nu ngeen gisee nu ngeen ko bëggee te loolu Mbàkke dangaa baax rek waaye nun bi ñuy jébbalu danoo fekk ci sart yi wa tarku lixtiraat mutlaxan wala bi atini alay fi ma raaw wa ma huwa sababu lixtiyaar li xut ni sa nii bi laay inkaar yi loolu leen fekk waaye sax mbaax rek moom nga àndal ñun yàlla yàlla guddal sa fan yàlla na la yàlla wéral yàlla sàmm la yàlla aar la ñoo ngi siyaare bu baax xam naa ni Seydou fi mu ne nii yaramam tàng na fekk jotut micro bi du am jàmm waaye naa naa la ko bàyyee rek ndax xam naa bu ma ko waxee soxol man naa jeex fi ne nii yaa ngi lox maa ngi lox de waaye nag kaddu gaa ngi noonu yaa ngi noonu siyaare bu baax Cheikh Mbacke Serigne Cheikh Mbacke solution mu Serigne Moustapha mu Cheikh Massamba moom mi ngi nii toog alaaji Seydou noppee moom la ñuy jébbal kàddu gi mu wax ci turu mbokk yi Serigne Youssou Dieng mi ngi ne toog mu Serigne Naar Dieng ak soxna Ndiaye Moussa Fadal moom di kenn ci soxna si kilifa ak sëñ Modou Rokhaya ak si noonu muy sëñ Bass Mbacke moom sëñ Moussa Basir bisimilah. jërëjëf Serigne Modou Mamour Lo Gaydel nuy siyaaraat bu baax. sëriñ Bachiru Mbakke mii dugg si léegi moom sëriñ Moussa Bachir waaye noonu la ñuy ziyaare bu baax itamit sëriñ Abo Mbakke moom sëriñ Cheikh Say moom Cheikh Soyibu yebal na fi délégation bu mat délégation ku ko jiite mooy sëriñ bu Njaay noo ngi ziyaar bu baax soxna su yàlla baaxal soxna su bëgg lu baax soxna suy jëf lu baax ànd ak soxna mun Muntaxa ci liggéey bu rëy bii muy liggéey Sëriñ Tuuba ak maamam soxna Maam Jaara waay di liggéeyal fondation bi nga xam ne mooy fondation soxna Baali Muntaxa muy soxna Biisu ngoone bu 2STV soxna Biisu jërëjëf sa taxawaay sa taxawaay rafet na lool sa liggéey rafet na lool ci fondation bi ndax plateau yi ku ne gis na plateau yi ak ñi nga xamante ne yaa ngi koy dox guddeeg bëccëg ngir ñu am taxawaay ci biir fondation bi kon jërëjëf noonu lay ziyaare tamit bu baax sëriñ Issa Mbakke sëriñ Issa Mbakke moom sëriñ Moustapha Basir du Isaaxa Issa Mbakke moom sëriñ Moustapha na ko ñëpp di yóbbaale maa ngi ziyaar bu baax sëriñ Ousseynou Mbakke moom sëriñ Ateex moom sëriñ Fallilou noonu lay ziyaare sëriñ Basiru Mbakke moom sëriñ Saliou Mbakke ambassadeur moom it na fi maa ngi ziyaar bu baax itamit sëriñ Muntaxa Diouf moom Serigne Thierno Diouf Lambaye moom it teew na fi may ziar bu baax Serigne jiili Mbakke moom Serigne Moustapha moom Cheikh Abdoul Aziz di kenn ci fondation bi ku jàpp lool fondation bi waaye ku taxawu lool fondation bi waaye kuy liggéeyal fondation bi mooy Serigne Moustapha Mbakke noo ngi koy jox waay mooy Serigne Djili Mbakke moom seriñ Moustapha moom Cheikh Abdoul Aziz Mbakke jërëjëf ci sa taxawaay yal na nga fi yàgg lool te ànd ak wér ci barkeb Serigne kenn koo xam ne day kenn ci soxna Bali te maamun wax ko léegi ñu war seeni koo jox kaddu muy Serigne Cheikh Mbacke solution nee naa ko yow yaay régler solution yi Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Moustapha moom ma samba di kenn ci soxna Bali Muntaxa maa ngi lay jox bu baax sa mbakke Mbacke jërëjëf noonu lay ziyaare bu baax Serigne Abdourahmane Niang moom it teew na fi moo ngi nii toog di kenn ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa waaye di kenn ci soxna Bali Cheikh Abdourahmane Niang jërëjëf ci sa teewaay maa ngi ziyaar bu baax sëriñ Abo Mbakke moom sëriñ Mamoor moom Cheikh Mouhamadul Muntaka maa ngi ziyaar bu baax itamit sëriñ Xaadim Mbakke moom sëriñ Mamoor moom Cheikh Mouhamadul Muntaka waaye nag di ziyaar jàmbar ji nga xam ne léegi la yegsi réew mi di ko waxtaane ci lu baax bitim réew di ko waxtaane ci lu baax muy jàmbaari seexul xadiim moom la ko cheikh mouhamadul muntaxa góor yàlla xalif général kul murit mujjee wax ne ko nañu lay wax jàmbaari sëriñ Touba kooku mooy kan sëriñ basiru mbàkke xaadim aw ba gaynde baara sëriñ basiru mbàkke xaadim aw ba gaynde baara moo toog nii ànd ak délégation bu mag délégation nee naa ko démb li nga def ci Touba dayoon na sëkk mooy social bu rëy bii nga xam ne démb ku ñëw pencum guy mbind xam ne yaa ngi liggéeyal sa maam Cheikhul Khadim waaye yaa ngi liggéey sa maam Serigne Baara Mbakke Serigne Bassirou Mbakke Khadima ba Gaynde Baara bi muy ñëw ànd naag forte délégation bi muy ñëw ànd naag rakkam ju baax mooy Serigne maam Cheikh Mbakke AIS ki nga xam ne moo lëkkale mbooleem këru diine yi ñuy xeex li nga xamante ne mooy ndonoy mag ñi. sëriñ mam Cheikh Mbacke Ayes jërëjëf ànd naa yi tamit rakkam sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Xaadim Awa bi muy ñëw ànd naag tamit sëriñ maam Mor Mbacke Dendey waaye bi muy ñëw tamit ànd naag sëriñ maam Mor Mbacke bu Dendey waaye bi muy ñëw ànd naag sëriñ moom sëriñ Modou Makhtar waaye bi muy ñëw tamit ànd naag sëriñ Cheikh Sarr. bi muy ñëw ànd ak tamit Serigne Ibrahima Cissé waaye bi muy ñëw ànd ak Serigne Abdou Karim moom Serigne moodu Baara waaye bi muy ñëw ànd ak Serigne Baara Diop ak mbooleem délégation bi nga xamante ne mooy délégation jàmbaari cheikhul xadim ji muy Serigne Bassirou Mbacké xaadim awa ba gaynde Baara borom initiateur bu mag bi la grande journée culturel et religieuse de Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ñu bëree bari xam nañu sëñ Baara ndax yow ñu bëree bëri bëgg nañu sëñ ndax yow ñu bare bari liggéeyal nañu sëñ baara ndax kan sëriñ Basiiru Mbàkke Xaadim Awa Ba gaynde baara kon sëñ Moodu Maamul Loo gayndeel kaddu gaa ngi niiwaat waat ci soxna baali taxa ay soxna baali yàlla na fi yàgg te wér soxna baali yaa sagal yoon wi de yaa sagal l'islam tey jii l'islam ak yoonu murit danañ xam ne tey jii jigéen ñu mel ne soxna baali rek la ñuy téwoo jigéen ñi nga xamante ne ñooy roy seen maam ju baax ji soxna maam jaara bu sa ca poroxaan mooy jàmbaari poroxaan bay faalu poroxaan soxna baali muntaxa sëriñ Moodu Maamun Lo ba ci kanam jërëjëf alaaji am na solo lool di siyaare baax sëriñ Abo Mbàkke mu sëriñ Bas Moor mi ngi nii toog di doon ci soxna ja moom Cheikh Mamadou Basir ñoo ngi koy siyaare bu baax nuyu bu baax Serigne Abo mu Serigne Mam Moor moom Cheikh Mamadou Muntaxa moom mi ngi nii toog ñoo koy siyaare bu baax Serigne Pam Ñang ñoo ngi lay siyaare di la ndokkeel di la defal mention spéciale yàgg délégation bi nga àndal ndax yéen a ngi def loo xam ni nit ku baax ko man borom xol bu rafet ko man nit ko am yërmandee ko man mooy yéen 24 heures sur 24 da ngeen di xëy di wër ñi nga xam danoo amee wére di xew di leen xool di leen saytu di leen watal seeni bopp di leen ragg di leen solal ay yére di leen yóbbu ci hôpital yi kenn ku ne ñuy xool lan moo ko war a dal te loolu lu am solo la Sénégal ku dof rek ñu ne rab ko jàpp te am na ñoo xam ni ñàkk nelaw rek mën na leen a dofloo xam naa man moom bu soobee yàlla nañ ma nañ ma ci xaar am ñoo xam ni wax ju bari dañ koy defa def ba wax ji mujj leen a dofloo am ñoo xam it ah yeneen yi ñuy jëlit moo leen di dofloo mbokk moo am mu jékki-jékki di fixé fenn rek te wa am na ci lu mu ne buy xool jékki-jékki reetaan yi fi sori na waaye nag bu reetaanee ba tàcc moom kenn mënatu koo faj kon nag Serigne Djili Mbacke mi ngi lay siyaare mu Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Modou Fati Xëri di la ndokkeel baax Mbacke kon Serigne Cheikh Mbacke solution jébbal la kàddu bi siyaare jii Djili Mbacke mais mu Serigne Moustapha mu Serigne Abdou Aziz Baara di kenn ci fondation bi di jàpp ci liggéey bi moom Serigne Abo mi moo tudd léegi noonu la ñu àndee soxna ci liggéey bi kon Serigne Cheikh Mbacke bisimilah. aouzu billahi mina shaytaani rajim rabbi ahuusu bika min hamasaati sayaatini wa ahuusu bika rabbi an yahduruni bokki taalibe yi ginnaaw bi nu sante yàlla borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonent bu tedd bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi nga xam ne moo ne asax bi kan nujuumi ayuhum axtadaytum maxtadaytum ñu ngi jaajëfal see Ahmad Bamba Xaadim Rasul sunu yaakaar tey jii ak bu ëllëgee di yëkkati nuyoo bi di ko teg ci loxol Serigne Mame Thierno mu tegal ñu ko ci loxol Serigne Mountakha mi fi Serigne Touba fa lañ koy yemale it ndax dañuy tënku ci ne yoon wi benn kilifa la am buñ tuyoo Serigne Mountakha nuyu nañ murid yëpp tàmbale nag ci soxna Baali jeexale it ci soxna Baali kàddu gi mu ma jox daf ne ma naa ko waxal ci turu bokk yi waaye dama ci joxe rek ay quelques explications mooy lii mu taxawal di fondation bi lu ko tax a ak fu mu jëm li ngay njëkk a posé bu question mooy mo bi fu muy jëlee li muy joxe li ma ci xam mooy ki ko créé ak ñi ci bokk ñooy yëkkati seen alal di ci def ku ci jàpp ñu booleel la ko ci may wax ne kat alxuraan nee na man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha boo defee benn yàlla dalay lay fay fukk waaye dafa mel ni kon fondation bi boo defee benn dañuy jël juróom-ñeenti benn boole ci ñoom defal la léegi kon day mel ne benn bi nga def fukk lañ ko jëfee kon bu ñu lay fay téeméer lañ lay fay kon kuy def dëgg la nga def baax na waaye jaaree ko ci fondation bi gënati na ca kon maa ngi ñaan sama bokk yi opérateur économique yi di laaj sama bokk yi homme d'affaires yi ne leen def lu baax baax na de waaye defee ko Touba gii nag nga ci gënati def lu baax Touba baax na de waaye jaare ko ci soxna Baalim sëñ Muntaxa gënati na ci kon maa ngi ci soññ sama bokk yëpp Modou Mamoun daaw la ma defoon dañ koo xuumtoo woon ren nag dama cee bëgg a joxe exemple ndax kat xam naa ne sax waru wa rubbama ibadatun kasira xat afsadatha laxsatun xaqira bari waa na jaamu yàlla goo xam ne boo ko gendikoo yàlla du ko fay waaye sama jëf ren dama cee bëgg a woo ay nit ñi teew fii ak ñi ne ci réew mi ak ñi bitim réew mooy ñu xam ne fondation bi li muy def ñu def ni ma def ak def ni Serigne Bassirou Khadim aw Ba def mooy tax mu man ko mooy di ci jàpp en nature waaye di ci jàpp en espèce kon man dinaa joxewaat ren ji téeméeri saakoy ceeb ak un million loolu nag loolu nag ab soññee la ci ñi fi nekkul teewuñu te war a gis image yi xam ne fondation bi pour mu dox nit ñi ñoo yëkkat seen alal di ci def ñu xool ñi ko gën a soxla ñu leen ko koy joxal ndimbal yi ñi ko gën a soxla la ñu tànn di leen ko joxal te xay na man naa bu ma toogoon sama kër bëgg a def du ma joti ka nga xam ne moo ko gën a soxla fondation bi am nañ ay équipe yoo xam ne dañuy gëstu ñi feebar di leen jëndali ordonnance am na ñoo xam ne dañuy gëstu ñu amul dépense ñu leen koy yoroon am na ñoo xam ne dañuy gëstu ñu wéradi ñu leen di lijjanti bañ wér am na ñoo xam ne itam dañ leen taxawu ci yeneen yoo xam ne du ñuy mën a dund kon ku jàppule soxna Bali liggéeyal nga yàlla liggéeyal nga yonent bi liggéeyal nga Serigne tuubaa waaye jaamu nga yàlla ci jaami yàlla yi ndax fondation bi li muy dajale te ñin ñi la ko jëmale soxna yi nag li ma leen waxee ne ci moom laay ubbee ndax boo nee fondation bi soxna Bali nga wax man dama koy sant di ko gërëm di ko ñaanal mu yàgg fii waaye nag di ko ñaanal mu wér yàgg yi sax alxuraan a ko wax euh, ku amal ku amal njariñ nit ñi wa ammaa maa yanfaxu naas fayam ko su fil ardi ku amal njariñ nit ñi faw nga yàgg fi kon dana fi yàgg ñu ngi koy ñaanal yàlla na wér te lu man ren bu déwénee mu man ko di tëjee ci la waykat ba waxoon jaan ju góor ak ju jigéen dangar ya ab luggukat xàmmewu leen ca jat ya ju la ci màtt boo luggul mu rey la ku xeet jigéen ci diine yàpp nga yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ seex Mbacke solution kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko boole ko ak jëf ju rafet ji nga ko booleel mooy soññe nga ci wan nit ñi ne lii nii soxna see ko def ànd ko ak ay bon volonté bi nga ko waxee na danga nga caa jiitu yëkkati sa jëf ju rëy ji tàbbal ko ci lii kon Mbàkke yal yàlla guddal sa fan yal na la yàlla wéral yàlla dool la kàttan dool la sutura sëñ Moussa Massamba sa baay boo nee moom a jur buñ la xoolee rek jom lañu war a gis ci yow fulla lañ war a gis ci yow ngor lañ war a gis ci yow yal na yàlla guddal sa fan yal la yàlla wéral waaye nag bu lépp jàllee it ku ne xam ne ni soxna Bali soxna Maguette Gueye maam Matar Anta mi ko jur ak soxna Issa Dieng mi meññ Seex Masamba ñoo bokku ndey ak baay kon yow ay yooni yoon lay sëb cër ñuy siyaare bu baax sëriñ Abdou Lahad Mbacke mii ak si léegi moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo dugg si noonu di ministre conseiller di nit ku baax noo ngi koy siyaare bu baax di ko jox di wàccuwaayam mu ñëw ànd ak Serigne Mamor Mbacke mii moom sëñ Ibra Xujja mu Serigne Modou Xabaan mii xalifa Serigne Manumbe ak Serigne Cheikh Diop njekk mu Daaru Xuddoos moom it moog Serigne bee ànd ñuy siyaare bu baax Serigne Saliou Mbacke moom sëñ Seexuna moom si Abdou Lahad waaye moom soxna May moom sëñ boo ma di yaanu sooyibu mooy mi ngi nii toog di doom ci soxna si waaye di jarbaatam di léppam Mbàkke Balla noo ngi lay siyaare bu baax kon ñu dalal sëriñ bi rek ñu jubalaat ci kàddu ki ngir mu bañ a guddi te xam ni balaa tàkkusaan war noo yëkkatu jotaay bi ak yi nga xam ne war nañ koo joxe ak yi nga xam ne war nañ koo def sëriñ Basiiru Sàmb nee na Cheikh Baara Gueye moom it mi ngi fii di opérateur économique moom it ñoo ngi koy siyaare bu baax jox ko wàccuwaayam kon nag li ñuy def mooy yeggale kàddu yi rek ginnaaw bi nu sante Serigne maam Thierno Mbacke mu Cheikh Mountakha di ko gërëm ndax moo fi njëkk tey moo fi njëkk a ñëw toog ci salon d'honneur bi xaar gan ñi ba ñu agsi mu door a génn kon Mbacke noo koy sant noo ngi koy gërëm. sëñ Mouhamed Diaw sëñ sëñ Mouhamed Diaw da cee amoon kàddu waaye moom moo wax ni rek nag ko sëñ Fallou jéggal te ñu ñaanal ko jëf ji di yokk def na taxawaay yu am solo jëf fi jëf yu am solo yal na yàlla guddal sa fan yal na la yàlla wéral Lausanne jege na ca Suisse nekkal fa sëñ Tuubaa yàlla gën a taxaw Serigne Mbuub CCBM mooy dugg si noonu kon nan ko dalal te sant ko te gërëm ko kon ñu jël kàddu gi nag jébbal ko ñi nga xam ni ñooy waa ONG ATA ONG ATA nag dañuy jàmbaar di ñenn ci fondation bi yàgg a jàppale fondation bi lépp lu fondation bi ne bu nu gersoo gis leen léegi rek ñëw nañu indi teraanga yu bari jëbal ko ci bis bi kon xayi Mouhamadou Naji almumassali li mu assasatil ni qatar wa naskurukum ala tahawuni minkum bi mu asati soxna Bali marhaban bikum al microphone bayna yaday assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك جئنا اليوم وفد منظمة العطاء بالسنغال وفد العطاء فيه أنا محمد ناجي نائب المدير العام ومدير المشروعات معنا مختار سيدي مختار كنت سكرتير المنظمة معنا سيرين مصطفى سيسي مستشار المنظمة في توبة جمعية العطاء تتقدم بالشكر وبالتهنئة إلى فونداسيون سخنة بالي حيث هناك بارتناريا مع فونداسيون سخنة بالي مع جمعية العطاء لتنفيذ وتوصيل المساعدات والأعمال الخيرية إلى إقليم جربل جمعية العطاء تعمل في السنغال دب دوملدوز من 2012 لنا مجالات كثيرة في بناء المساجد والآبار وكثير من المساعدات دما يوخل توترك برمجاد أبري مصطفى بورترادوي وملا محمد ناجي ديريكتير دي بورجي أدجوان دي جي إبراهيم رشدي نيوناتاي أك فونداسيون Euh, ak délégation Alata délégation Alata am na délégation Borey Malla Mohamed Naje directeur projet bi Sidi Mokhtar Konta secrétaire Moustapha moom adjoint waa délégation Alata bi am na partenariat ak fondation Soxna Bali parce que ñëw na Diourbel euh, bi quatre fois wala cinq fois taxaw na ay kër diine ak euh, calife général Serigne Mohamed Bachir Mbacke Montaka moom def naa partenariat def naa ay projet ay cinq mosquées ay trois trois forages def naa euh, projet ay euh, consultation gratuite caravane médicale ay projet bor tàmbali ay machine ay machine ay euh, non couture ak néew am na ay matériel ménager matériel plombier def naa partenariat fii ak fondation Soxna Bali taxaw naa ak fondation Soxna Bali gis naa liggéey fondation bi liggéey dafa réew dafa am solo dafa am bu baax parce que liggéey bi bor population lépp bor waa Diourbel yëpp ñu dafal gërëm sant bu baax ak nio bor waa Diourbel yëpp bor fondation Soxna Bali amul fàtte naa ak sant bu baax la mairie mairie Diourbel ak délégation waa euh, Diourbel ñëw na tey moom Serigne euh, Eh, Serigne Mouhamed Bachir yëpp man eh, Sisi day traduit moom amul fatna berson na ñoo yëpp moom néew na tey néew na tey ak tànk eh, ak tànk al ata bor gërëm ak sant fondation Soxna Bali encore na ñu fatul ñu waxtaan ak fondation Soxna Bali congratulation affaire ONG moom am na ay corps de charge affaire munazamat Soxna Bali asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Euh, directeur des projets Mouhamed Naaji moo doon yëkkati kàddoom si turu directeur général Moussa Ibrahim Rousdi mu yónni ko fii une forte délégation mu jiiti ko euh, man mii di secretaire bi ak euh, Moustapha sise mi nga xam te moom moo représenté ONG bi fii si Touba mu ni mi ngi jiital si nuyoo bi xalif général des Mourides Serigne Mountakha di beral loxo sant ak ngërëm ci soxna Bali ndax euh, fondation Soxna Bali ak ONG Al Atta partenaire bu yàgg la te euh, Cheikh Moustapha Cissé mi nga xamante ni moom moo dëkk fii si Touba nekk représente euh, Soxna Bali ak entre ONG bi su jëlee kàddu dina leeral ñi fi teew yan projet ak yan financement yi nga xamante ni fondation Jamhiyatul Atta jox na ko jot na ko jox Soxna Bali asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi jéggalu nag ci kàddu yu may yëkkat yi ci kanam sang yi ak samay kilifa euh, mais liggéey bi rek moo ñuy obligé pour co ñu leeral lenn loo xamante ne bi munazamatul ata seq na ko ak mu assasatu soxna Bali Muntaxa euh, léggéey boobu nag mi ngi commencé depuis daaw la ñu commencé euh, kii bi fo relation bi commencé itam liggéey bi ndax daaw ci màggal gi di jub si ci la soxna si njëkk a initié pour ñu def ay caravane médicale ci biir Touba mu Nazamatoul Ataa nekkoon ci ginnaaw loolu ci initiative fu soxna si ginnaaw loolu passé itam soxna si amoon ay yéene ci ay gox yu fasantikoo ci biir Touba ñu taxawal fa néegu yàlla mooy jàkk wala juma am na yu ci yoo xam ne te ni bii déjà pare na julli nañu ko inauguré nañ ko am na ci yoo xam ne mi ngi en mi ngi en cours ñu ngi koy tabax euh, pareegul ci turu fondation bi en relation avec Mounazamatou al am na ci itam ay forage yoo xamante ni bi réaliser na ko ci turu euh, fondation bi euh, al Adaa jàppale ko ci ba réalisation yooyu sotti na am na ci comme bi nga xamante ni bi ci bu yàggul dara incha bi danañ ko intégré mooy forage bi nekk Mbul Mounazamatou al Adaa nag am yéene trop trop si Touba trop sax ndax euh, liñ daan dégg ci Touba ak liñ fi gis dafa différent ba ñoom ñu jël seen décision ferme kane lépp lu ñuy def ci Sénégal Touba kenn du ko ci ëppale loolu moom mën naa ko confirmer ndax man taalibe laa ci dëkk bi laa dëkk Cheikh Sohibou bu radiyallahu anhu mooy sama sëriñ ma nekk ak ñoom itam gis ne liggéey bi ñuy liggéey dafa set wecc jullit bu ne war nga ko mën a jëriñoo ci loolu la ñu fexee ba nga xamante ne bii munazam yi am na ay relation direct ak soxna si soxna si itam ci biir taxawaayam ak bëggam lu baax ak euh, ak ak yéeneem ci la contacté directeur général monsieur Ibrahima Roujdi mu fekk ko ci onomo ñu toog waxtaan ba mu ne moom Moustapha yow mii de dem na ma si gën a jàppale comme Touba nga dëkk ma ne ko waxuma jàppale waaye man kay may nekk Baye Fall bi ci kattanu yàlla ak mbaaxam loolu nag euh, ñu ngi koy leeral liggéey la itam liggéeyu set wecc la buñ ko defee ba pare jébbal ko soxna si ñun amatuñu luñ ciy wax wala luñ ciy def loolu nag yaatu na lool ci Sénégal mais Touba daal la ñu wax ndax moo ñëw fi indi tey daaw lañu fi bëggoon a ñëw mais daaw bi ñu koy def man dama tëddoon feebar te directeur dafa tukkoon directeur nekk ko fi actuellement nii mais bu ñëwee moom mooy ñëwal boppam. moo tax itam mu jël Mouhamed Naaji mi nga xam ne euh, euh, euh, mooy mooy mooy yaddul yum naam moo koy dimbale si lépp ak monsieur Ibrahima Kunta Mohamed Kunta ñu ñëw teewal ko fi ak man mii. pour que mu yëg ne soxna Bali ci boppam daf ko ñor lépp lu jëm ci liggéey bi ak fondation bi daf ko ñor ñi nga xam ñi ngi feddali seen wëllëre ak seen taxawaay ci diggante relation boobu nga xam ne am na ci diggante fondation bi ak mun na Munassamatul Wafa voilà nee na itam am nañ contentement bu baax a baax ci li ñu gis fii ci ne lii yàlla rek yàlla rek moo tax te gis nañu ne itam waa Touba yëpp a ngi fi gis nañu itam soxna si li muy def defu ko pour boppam da koy def pour population bi da koy def pour néew ji doole yi da koy def itam pour julliti yàlla yi ndax bu fekkonte ne pour boppam a tax du du du def lu mel nii lii nag lu rëy a rëy la bokk na ci loo xamante ni ñoom danañ ci def rapport pour yéegal ko pour ñëpp xam ne ëllëg incha rabbil alamin dana am yeneen taxawaay yoo xam ne dana jóge bitim réew ci seen côté dugg si ci fondation bi ci kattanu yàlla ak mbaxam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf ONG Al Ataa ci kàddu yu am solo yi nga xam Mouhamad nag it jërëjëf sa kàddu rafet na am na solo ñàkk xam ni dégg nga olof doo nga tax mën doon jéem a kebet waaye dëkk yow la waay wax di nga ko xam taximaan ba nag li ko daloon daa am tubaab ba mu yab jëlee ko aéroport Mouhamed si la di ko woo naan ko foo ne waaye man daal tey benn benn tubaab bu soof laa dajal waajaa ñi ñaaw ñaaw boo xam ne ba noppi tilim xam naa ni moom ñetti fan ci sanguwul tubaab bi ñëw ba ak sëñ Ndiaye daan na ko sëñ bi jërëjëf kon yàlla nañu yàlla waneel waat ci jàmm kon ñu jël kàddu gi jébbal ko sëñ Fallou Gaye mu mu mu mu sànni kàddu moom it day kenn ci soxna si di jàpp ci liggéey bi di boromi taxawaay bi yëngu ci social kon pour gagner du temps ñu xam ni tàkkusaan jot na te kàddu yi bu guddee rek ndax war nañoo jëkk kàddu jox ko Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma monsieur ministre buñ nopp dinañ jox kàddu it Serigne Mboup CCBM sëñ Bassirou Mbacké Khadim Awa bu ko defee sëñ Mame Thierno Mbacké ñaanal mbooloo mi sëñ ñu fàll bismillah asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu maa ngi nuyu mbooloo leen sant di leen gërëm di nuyu sëriñ bi sëriñ bi fi teew di sëñ Cerno mu sëñ Muntaxa maa ngi tudd Fallou Gaye bokk ak soxna Bali soxna Maguette gay ma yëg naa fi samay mbokk fi ñëw jóge kàmb ak caxaw ma di leen yëgal ni Mouri Gaye mooy sama baay mooy borom caxaw fi fi ñu toll bi kon maa leen di nuyu yéen leen siyaar bu baax kàddu gi nag ci ndigal lañ ko jëlee muy soxna baalee ni fi dox nii nan ci wax ci turu famille bi ndax ñun dañu ay mbokkam te ñu xam fi mu ñu teg kawe lool ndax bëgg mu bëgg mbokk di ñu boole ñu ci fondation bi ñu ànd ceeg ñoom di ko li ci liggéey ñetti at yi yëpp ñu ànd ko di fekk cérémonie yi ci cérémonie yi buñ ciy wax dafay mel ni annonce la boo xam ne une annonce annuelle bu nu war a def ci liggéey bi nga xam ni def nañ ko ci at mi lii di ko jëmmal ci li ñuy jox ñi nga xam ne ay nécessité lañ ak des personnes yoo xam ne démunies yi xam ne dañ koo soxla ndax ñëpp a xam particularité Touba ni mu bindoo ak ni mu tëddee te mbooloo ñu bari gàddaayee seeni dëkk ñëw na ko sëñ Abdou ñaane woon digle woon ñu ñëw dëkk ak Serigne Touba ca Sëriñ Tuubaa warloo leen lépp ca seen loxo jotul seen ginnaaw soxna Baali rek taxaw ci taxawaay bii nga xam ni ci fondation bi la ko jaare di collecter ay fonds di collecter ay denrées di leen ko séddale taamu ci nag weeru koor nit ñi di ko vulgariser di ko filme waaye daanaka at mi yëpp da koo dëkkee mu nekk ci hôpitaux yi nekk ci prison yi nekk ci néew ji doole yi nekk ci ñi nga xam ne dañoo yore ay laago loolu nag suñu dajee ci weeru koor mu nekk ñu def ko day mel ni day taxawaaye taxaw taxawee taxawaayu bilan ñu am ay partenaires am ay philanthrope am nit ñoo xam ne c'est des donateurs bu ñu egsee fii wax leen liggéey bi won leen ko dafay yell loolu mooy waral jotaay bi ñoom ñu xamal leen ni dons yi ñu collecté woon ci ñoom yëpp daanaka dans la totalité joxe nañ ko c'est vrai que mënuñu ko quantifier parce que li ci ëpp dafa bari nekk ay matériel te ñoom dañu ay nitu kersa nitu sutura ba tax na li ñu joxe mënuñu ko wax ni nang waaye lépp séddale nañ ko ba li ci des mu ngi ci en voie en cours pour ñu séddale ko soxna Baali nag waxoon ni elle tenait à remercier donateurs yooyu ñi nga xam ni at mii ak at yee ñu génne jël nañ seeni loxo def ko ci mu leen di mu leen di sant sant gu amul àpp mu bëggoon yëgal leen ko ngeen yëg ko ni ñun tamit nii nekk mbokkam ñoo ngi leen di sant sant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu jën jërë ngeen jëf. jërëjëf sëñ Fallou maa xam la wa dal la nii rek la baaxee ndax léegi tàkkusaan gi dugg si ñoo ngi lay sant di la gërëm di siyaare Serigne Saliou Mbacke mu Serigne Modou Abdou Khadre mi ngi nii toog feggoog. sëriñ Abo Jaxate mu sëriñ Seex Jaxate ak soxna May Munatu Mbàkke bu ñu sëriñ Abdou Lahad sëriñ Sall Mbàkke mu sëriñ am sa mu sëriñ Abdou Lahad mi ngi nee waaye léegi bi ñu nekkee ci biir kàddu yi ci la suñu kilifa gi dugg si di sëriñ Mamor Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Muntaha mi ngi nii toog ànd ak sëriñ Abdou Akim Mbàkke moom sëriñ Sidi moom sëriñ Abdou waaye ci biir kàddu yi ci la sëriñ Mahmoudan Mbàkke mi agsi moom sëriñ Cheikh Assou Faye feggoog sëriñ Modou Mbàkke mu sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad ak PDG Mouhamed Sylla mii nga xam ni day kenn ci soxna Baal di jàmbaar lool jëf ci bis bi def ci taxawaay yu am solo moom it ko Koso soxna si wax na ni sant na ko gërëm na ko te mi ngi leen koy seereel ñoo ngi siyaare bu baax mboolem ñi fi teew pour gagner du temps kon nu gaaw rek jël kàddu ji jébbal ko sëriñ bu CCBM ñu jébbal ko kàddu ji ñu xam ni rek euh, euh, moom it day kenn ci kër gi di jàmbaar lool di meer de Kaolack moom it mi ngi nii toog. waaw bi waa Kaolack yi Pape Demba bi tey moo fi yebal Serigne Baye Niass mii mu ñëw teewal ko fi kon vous avez la parole. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba si Mountakha Bachir di gërëm kilifa yi ma fekk yëpp ah, di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Serigne Koso ah, Mbàkke mu Serigne Mountakha ak sëriñ Cheikh Abdou Bali di nuyu sama mbokk dara sama sëriñ sëñ Bass Khadim Ba di nuyu ñu fi nekk yépp ah, li ah, lii ma gis fii tey ah, yéem na ma lool soxna si daana daana ñu soññi ci lu mel nii waaye li ma fi gis tey te xam naa ne lépp sax ñëwul kon nag di ko gërëm ci boole gi moom ma ci boole ba jox ma ci kàddu ndax lu rëy la ci man di gërëm tamit sama mbokk Cheikh Diop mi nga xam na ni tamit ci ñuy jiite euh, fondation bi la di sant ñëpp ñu ci def lu baax di wax rek ne bi bis yi ñëw ci daf ñu war a gën di soññ ndax euh, def ci euh, yoonu ci ci jox ku ku ko soxla ndax way yut'imuuna ta'aama alaa hubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiira jox nit koo xam ne nii dafa war a lekk te soxla ko dafa am solo am solo ci ñun ñi nga xam ne nii sax yàlla def la baaxe dara te mu nekk ngënal ndax euh, suñ sëriñ ba daan nañuy wax ne alxuraan la mu wax ne xus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha soo amee dara di ko ci jox dafa mel ni assurance la te ñun xam nañ ci dara ndax xam nañ ne li ñu tëyee mooy lépp loo xam ni dañ koy def ci yoonu yàlla jaarale ko ci ay euh, ci ci ay jaamam kon nag ñu ngi sant bu baax boole gi ñu ci boole dañ koy sant yàlla sant ko di gën a soññ rek di wax rek ne dëkk bi dafa nekk dëkk boo xam ne nii ki ko sañ ki ko sos muy sëriñ Touba li mu wax ci mat Matlabul Fawzayni rek doy na ndax ñëpp fi daje daje fi ku am yaa ngi daw wut si fi ku ñàkk yaa ngi ñëw wut fi te boo fi duggee duutoo ñàkkati dara te mooy dëkk bi nga xam ne nii dañ lay jox di la saraxu di la jox di la jox ngay lekk foofu ci àdduna bi yëpp kaw Tuubaa rek la am kon nag maa ngi sant yàlla di jégalu di baalu àq ñëpp di sant yàlla ci bis bi ci boole di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Alaaji Sëriñ Mbuub daara du tee. lu ñuy séddale ci réew mi am nañ ci wàll lu jàngka tubaab yi war nañ koo am na ci entreprise yu mag yi na ci société yu mag yi waaye nga def lu jafe dugg ci langue politique premier jour premier mois premier dimanche gagné ah loolu yombul ci appel sëriñu daara yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay kon nag jël kàddu gi jébbal ko jàmbaar ji nga xam ni day kenn soxna Bali di doomam di xaritam di léppam bëgg ko lool jàpp ko lool nangoo soññ ci moom lu soxna si woote jëfam mooy jiitu indaale jëmmam joxe léppam deselu ko dara ki jàkkaarloog bàjjanam ne ko bët bi may xoolee seen xaadim awa ba boobu bët rek laa lay xoolee kon Ibra Sarr ñoo ngi ñoo ngi baax tey gërëm ñu yëkkati kàddu gi jébbal ko Serigne Bassirou Mbacke mu Serigne xaadim awa ba moom Sëñ Lamine Bara wasalaatu wasalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin sayidina wa nabiyina muhammadin afdali xalqillah wa ala alihi wa ashaabihi wa radiyallahu an cheikhina wa wasilatina wa rajaina wa mawlana cheikh ahmad bamba asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi fi daje ñi ngi yëkkati sunu kàddu ci sant sunu borom subhaanahu wa taala mi nu defal ñu daj bis bi lenn ci jëfi soxna Baali Muntaxa yàlla dogalaat ñu dajawaat fi tey mu nekk ci weeru koor di weer woo xam ni sahru ramadan alladi unsila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqaan nekk weer woo xam ni weeru ci lañ wàcce alquran te ku ne xam na ni alquran mooy téere bi nga xam ni ku ko yàlla def ci sa dën sa dënn mucc nga àdduna mucc nga àllaaxira kon soxna Bali bu taamoo weer woowu di ci def xéewal yi te weer wi di weeru yërmande di weeru alquran yonent bi sallallahu alayhi wax na ni weer wi weeru alxuraan la ak itaamu taami joxe ñam mu taamu ci bis bi taxawal kon dañ koy sant di ñaan ki nga xam ni nag lépp mooma lu soxna Bali man mooma muy Cheikh mun taxa yàlla na ko fi yàlla yàggal mbokk yi sëriñ Mountakha waajib la ci bépp murit ni lekk ak naan nekk ci moom mënu koo ñàkk bañ a def julli ni nga nekk farata ci moom war naa doon képp kenn ci ñun ko nekk mu nekk fardu aynin ci moom guddalu fanam ndax fa tabaarakallaahu li sëriñ bi bëggoon desoon ci liggéeyam te ay waajuram tàmbali woon ko fa tabaarakallaahu moom moo ko àggale yàlla ko yàlla defal jàmm du nuyu sëriñ Koso di ko sant di ko gërëm ndax moom damay wax ni nit ku baax la nit la koo xam ni lu baax rek la bëgg woyof bari xam-xam bëgg sëriñ bi jàpp soxna Bali defu ko waajur waaye sëriñ la ko def kon sëñ ko sa ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di ziyaare sëñ Fallou mi nga xam dama koy wax ni ko yow yaay xaadimu usrati Cheikh Mouhamadul Bachir yaay seenub liggéeykat ndax taxawaay bi nga am ci wetu soxna si muy soxna baali taxawaay bu ñëpp rafetlu la nga nekk tànneef ci sëti sëriñ tubaay yi ndax lii woyof rek la te dañuy wax ni laa tam si fawqal ardi illa tawaaduan fa kam taxtaha xawmun wahum min ka arfaun li am solo ci nit mooy at tawaaduan tawaaduan mooy wàcce sa bopp lii nga def nii ci loolu la bokk Mbàkke ñu ngi lay sant di la gërëm taxawaay bi njabootu sëñ Moussa Bassirou njabootu sëriñ Mountakha góor ak jigéen njabootu képp ko bokk ci sëriñ Bassirou tàmbalee ko ci sëriñ Mouhamadou Moustapha yàlla na yàlla dolli ay leeram ba ci sëriñ ji mii fi nekk tey li ñu waroon def ci wetu soxna si yëpp yàgg leen koy defal Mbàkke jërëjëf yàlla na la fi yàlla bàyyi ñu ngi lay sant baax di la ñaanal yàlla di nuyu sama jaam sama xarit muy Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke jërëjëf yow nit ku baax nga yow doo tan am lu dara fépp fu yoon wi soxlaa bun gestoo danañ dafa gis kon Mbàkke jërëjëf sëriñ bi bu sa ñu ngi bekk di sëñ Abdourahmane Ñang waaw jërëjëf Ñang ñu ngi lay ziar di nuyu sëriñ Alaaji mais sama jàmm mu sëñ Abdou di nuyu monsieur le maire Abdou Lahad di ko sant di ko gërëm ndax moom sunu xarit la sunu soppe la sunu di nuyu monsieur le maire Serigne Mboup di sama magum daara ñu bokkoon nekk kokki moom it fa tabaarakalaaw mu nekk nit ku baax digganteem ak soxna si ay démb la kon bu ñëwee teewee lii kon dañ koy sant di gërëm Serigne jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm di la yàlla yàlla la solution dégg sa kàddu rafetlu naa ko lool jëf nag dafa am solo ndax na am yunfixuuna bi bil layli wan nahaari si wa alaaniya jëf bu la neexee nga nëbb ko bu la neexee nga fësal ko fësal ko parfois li tax muy baax mooy ñi nga xam ni buñ ko déggee xam ni lu baax la ñu roy la ci looloo tax mu di ko jëf mu di ko fësal kon jërëjëf solution Baye Niass maa ngi lay nuyu di nuyu sa xarit Pape Demba bi tey bërki démb ci woote kokki bi gis naa taxawaay bi mu ci def woo na ma yëkkati xaalis bu bari jox ko waa daara ko kon maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mu jàppale ko bi may ñëw maa ngi ànd ak sëriñ Maam Cheikh Mbacke solution ak sëriñ Moustapha fekk fi samay rakk Mouhamadan bu sëriñ Cheikh Assou Faye Mouhamed Silla sëriñ Modou Mbacke bu sëñ Sidi Abdou Lahad maa ngi leen sant di leen gërëm mbokk yi nag xam nga soxna si li mu def dafa am solo yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni isa maatal insaanu in xata amaluhu ila min salaasin sadaqatin jaariya aw ilmin yuntafau bihi aw waladin saalihin yad'u lahu nit ki bu génnee àdduna jëfam yépp day doog ba mu des ñetti jëf ñu ne ko yaa rasulullahi ban ak ban la mu ne sadaqatin jaariya comme lii soxna Bali def muy créer benn fondation boo xam dañ ciy dimbali néew ju doole yi nga jóge fi yool ba di la fekk aw ilmin yuntafa'u bihi mooy lim continuer di ko def di dimbali daara lu mel ni daaray kokki di leen taxaw ak daara yi ci biir mi ak daara yi ci Tuubaa nga jóge fi yool ba di la fekk aw waladin saalihin wala nga bàyyi fi njaboot gu barkeel te fa tabaarakallaahu mi ngi ci loolu yàlla wax ni ci alxuraan ni wa anfiqu mimma rasaqnaakum min qabli an yaatiya ahadakum almawt fa yaqula rabbi lawla axartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min alsaalihiina delluwaat ci fondation ba tey Serigne Saliou dafa am ku mas a ñëw ci moom ni ko Mbàkke feebar boobu ñuy wax cancer yàlla nañ ci yàlla musal dafa bari ni ko luy tax nit mu ci ci mu ne ko waaw balaa yàlla moo koy wàcce te feebar nattu la yàlla moo koy teg nit waaye nag aaya jooju yàlla di wax ni wa fi amwaalihim haqqun lissaa'ili wal mahruumi yàlla dafa wax ci alxuraan ni wa fi am amwaalihim xaqun lissaa'ili wal maxrumi alal yi nga xam ne yàlla jox na ko nit ñi ñaari nit ñoo ci am àq ki nga xam ni day wër di laaj ñu di ko jox kooku moom la alxuraan di wax ni wa amma il fala tanhar bu ñëwee tàllal loxoom waroo ko bëccingal boo ko mënee jox nga jox ko boo ko mënta jox nga bàyyi ko waaye ki nga xam ne day sol mbubbam mu yiw amul lum lekk wala bu añee du reer nekk nit ku yiw mënta wër tàllal loxoom di laaj kooku dafa am àq ci alal ji mooy almahrum seriñ Saliou ko ñaar ñooñu day ku ko bàyyi xel di ko faral di bàyyi xel ki li saa ili wal mahrum yi kiy laaj ak ki nga xam ne mënta laaj comme nii soxna Mbaali def nga bàyyi ba guddi jot nga yëkkat sa alal dem fekk leen fa jox leen ko mën naa am ko koy def yàlla mën na la musal ci loolu mbokk yi soxna si jëfam dafa nekk jëf lu rëy ndax salaasu tijaaraatin laysa ma xasaara nee na am na ñetti commerce yoo xam ne amul pertement ñu ne ko ban ak ban mu laa sama mulaasamu tilaawatil quraan mooy takkook jàng al quraan te soxna Bali mi ngi dimbali daara yi kon bu njëkk bi moo ko moom al muhaafasatu ala salaati ak di julli waxtu juróom mi ngi taxaw jumaa yi bërki dem rek la ubbi jumaa ba ja des mooy al infaaxu fi sabilillahi mooy joxe sa alal ci yoonu yàlla yàlla wax ni per commerce yooyu amul pertement ñu ni waaw fu ñëw ci alxuraan ñu ne yàlla nee na inna allazina yatluuna kitaaballahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma rasaqnahum déedéet wa nee na seen kitaaballahi wa salaata ah boobu la inna allazina yatluuna kitaaballahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma rasaqnahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuura bi ci suuratul faatiri laay wax yàlla wax ci alxuraan ni ñi jàng alxuraan di joxe seen alal di julli waxtu juróom ñoo ñooñu dey lépp loo xam ne yëkkati nañ ko di ko jaay njaay mooma du doon luy lamb du doon loo xamante ni si ni am am am amul ku koy na soxna Bally nag nekk nit koo xam ni jëmm ju baax la te lii mu def muy fondation dafa am solo ndax sëriñ tubaab bu waxee ni wa arxabul asyaa lil amwaati raddun ila dunia maal xayaati walaw suwayatan faqat li yaamalu tan tanfahum in xafalu mu ni doomu aadama yi bu bu ña nekk yoomal xiyaam lenn rek lañ bëgg mooy dellusiwaat àdduna ngir jëf fi benn jëf bu baax ñu ni lu tax mu ni foofa dara du fa doy dara du fa doy fu dara dul doy nag ku nekk ci àdduna war nga ko waajal préparer ko ba bu ëllëgee boo fa demee sa xewal man di sax man di yokk loolu sëriñ bi wax ni ña fa nekk soxlawun dara ci àdduna lu dul ñëwaat soxlawun fa dara lu dul ñëwaat ci àddina ngir benn seconde ñu jox nit mu naan jox nit mu lekk saraxe nit fajal yi nit fajal nit aajoyam loolu rek lañ soxla kon moom mi nga xam ne mi ngi bàyyi xel loolu yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla sàmm mbokk yi lii rek mooy aw yiw ñun ñi nga xamante ne si ñun lañuy tudd di tudd sëriñ bi suñu warteef ak suñu yitte warta doon leen lu dul di taxaw jaam yàlla yi di leen dimbali di leen taxaw ndax jamono ji metti na xat-xat yi bari na te bariwaa na gor soo xam da nga koy gis mu sol mbubbam di dox xëy xëy gëttam gu neex te yàlla sedd na ni boo lambee poos ba doo fekk lu lu lu lu mu dépensoo kon jaadu na ci ñun alal ji nga xam ni ak teraanga ji nga xam yàlla jox nañu ko ñu bàyyi bàyyiwaat xel ñooñu di leen dimbali ndax àdduna lépp day jeex lépp day jeex li fi nekk lépp day jeex te doomu mi waxtu wu duggee ci biir bàmmeel ban fab kanamam gi ndëstal ko mu féete penku amatul dara lu mu fa jëfuloon du ko fekk te jëf ba ci ëpp solo mooy leer sa mbokkum jullit mu lekk ndax dañuy wax ne luqmatun te sudd bat na jaaxin afdalu min binaay alfi jaamia yëkkati benn tibb leel ko gémmiñal aji xiif moo gën junniy jumaa yoo xam tabax nga ko ngir nit ñi di ci jàmm yàlla kon soxna Badi lii muy def sant nañ ko gërëm nañ ko yàlla ko yàlla jàppale yàlla ko yàlla sàmm Cheikh Diop ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla mu jàppale la man man maa la yar ca kokki ñu nekk ndoon nga nekk sama rakk waaye maso soppeeku maso changé bari waa na ñoo xam ne ñeew lañ mel yàlla dénk leen teraangay àdduna ñu fab njabootu sëriñ Tuubaa gi def leen moroom buñ solee mbubb mu rafet buñ xëyee suba dem jëndi mbubb mel ni noona lu ñu def ñu bëgg koo def defuñu ko ngir roy ci ñoom xam ne lu baax la waaye dañ koy def ngir teg leen bët wala di wa wa wala di leen diir mag yow nag fa tabaarakallaahu yàlla defal la loolu. kon ñu ngi lay ñaanal yàlla jàppale taxawaay bi nga am ci wetu soxna si man xam naa sa xol ci soxna si xam naa sa yéene ci soxna si yàlla na la yàlla sàmm yàlla na la yàlla jàppale. gone yi nekk ci wetu soxna si yëpp taxaa juuf mi Mamour Lo Seydou si ñoom Lamine Seck jili puuf di male ñoom ñëpp ba ci sunu rakk jële muy sëriñ Abo nga xam ni fa tabaarakallaahu borom xam-xam la waaye loolu lépp da ko fab summi ko teg ko fële xam ni yoon wi moom yoonu jëf la ndax lu nit mas am lu nit mën a am ci àdduna te jëfoo du la jariñ dara sëñ Massamba Diop Sam dafa ñëwoon ci sëriñ ma sëriñ Massamba dafa ñëwoon ci sëriñ Touba ne ko yow may ci alxuraan bari na lool te yow ma ku ci nekk yomal xiyaam lay firi te ma tiit ci yomal xiyaam jàq ci yomal xiyaam te yaakaaruma fu ko dul yow Serigne Touba ni ko demal ubbi kaamil yow ma goo njëkk gis nga indil ma ko mu ubbi kaamil joto yow ma naddoo ko loon asin bii ma im bi mu ko jëlee ñëw sëñ bi sëñ bi ne ko jan aaye nga yem mu ne ko mbàkke ñun day xamuñu dara buñ toogee ci yow bëggatuñoo xam bëggatuñoo dégg bëggatuñoo doon dara sëriñ Tuubaa ne ko sàmba waxal mu ubbi kaamil woon ko sëñ bi sëñ bi jàng bayit wi ne ko yow ma yaddoo kul onaasi bi maam mi mu nga jot mu ne ko waaw mu ne ko aaya ji li muy tegtale mooy yàlla dafa wax ni mbooloo mu nekk bu ëllëgee ci seen njiit lañ leen di àttee mu ne ko ma sàmba bul tiit bul jàq bul ragal ndax bu boobaa may jiitu ngeen topp sama gannaaw kon ñun ñii yàlla nañ yàlla boole ci loola loola nag li koy may ab murit mooy nangoo jëf te néew wax jëf ñeeg ja pu doole mooy weer wu ñu nekk weer la woo xam ni dañ cee war a njëkkante ci lu baax yoon bi sallallahu alayhi wasallam danaan wax ni weer wi ku ñëwee tëj leen jëf yëpp conférence yi ngeen def tëj leen ko jàng alxuraan ak saraxe itaamu taam wa xiraatul xuraan jàng alxuraan ak saraxe kon weer la woo xam ne lii soxna Bally di profite du ko def yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla taxawu sunu xol sedd na bëgg nañ sëñ koso ñu ngi lay ñaanal yàlla jàppale la yàlla sàmm la di sant mbokki taalibe yëpp di sant murid yi fi nekk di sant taalibe yi sëriñ tubaay nii rek la ndax ku nekk ci lu baax ñëpp ko war a jàppale te soxna si dama koy wax ni ko yow li ëpp solo loolu la yàlla jox yàlla dafa wax ci alxuraan ni yaxluqu maa yasaaw yahabu liman yasaaw inaasan wa yahabu liman yasaaw zukura aw zawjuhum sukuraanan wa inaasan wa yaj'alu man yasaaw aqiman yàlla dafa wax ci alxuraan ni man may seet ku ma neex ma jox ko doom moo xam góor la walla doom doomi góor wala doomi jigéen wala ma jox ko góor jigéen wala waaye jànglu ma ne sa wax man wala ma def ko koo xam du am dara soxna si ku ne xam ne natt boobu yàlla teg na ko waaye natt bu muñ la muñ loo ko yàlla waaye sëriñ Tuubaa dara na wax ni al waladu waladaani bi sulbi wa xal bi dani doom ñaari doom la ñu ne ko ban ak ban muy muy waladu bi mooy doom ji nga xam ni bu sa baay jógee nga dond ko xal bi nag ñoom moom la yàlla tànnal soxna Bali jox ko muy ñoo xam dañ ko bëgg ci seen xol xooluñ ci moom dara bu nee waaw ñu ni waaw bu nee weex na tàll ñu ni tàll bu nee ñuul la ñu ni kukk lu mu bëgg ñu def ko mooy ñoom sëñ Muntaxa ñii di ñoom sëñ aboo du mel ni ñu mel ni ñun ñi doom yooyu la ko tàll wala du sul bi nag mooy dondu alal yi wa wala dul xal bi nag sul xaal mbir yi ak secret yi moom la ko yàlla di jox kon soxna si yàlla na ko yàlla taxaw yàlla na ko yàlla sàmm neewul kenn bu mu doon góora li ko war lépp mu ngi koy def innal muslimina wal muslimaati wal muminina wal walmuminaati walxaanitiina walxaanitaati wasaadixiina wasaadixaati wasaabiriina ba aaya ji jeex fu yàlla tudde góor tudd na fa jigéen moom nag fu koy moom nag bu ëllëgee bu ëllëgee dana bokk ci jigéen ñi nga xam sëñ Tuubaa da leen di pukkare ndax duñ ko man masuma koo dégg mu wax luy lor ab julit te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam al muslimu man salima al min lisaani wa yadihi julit dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne ñëpp mucc nañ sa ayu làmmañ doo lor kenn ci sa làmmañ doo lor kenn ci sa loxo te soxna si fa tabaarakallaahu noonu la ko yàlla mel loo kon yàlla ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla taxaw njabootuk sëñ Moussa sëñ sëñ Basiiru dañ leen a naw ak taalibe yoonu murid yëpp bañ nañ ko ba ku jël ci yow référence dañ naan la dangaa ngaa nuroog waa kër sëñ Basiiru ndax sëñ musaa Basiiru da na nàmpatal nampatal toqantal leen ci taalibe loolu rek lañ xam taalibe googu nag ci la leen yàlla bijjee ba boole leen ak soxna si ñu jàpp ko def ko waajur yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla taxaw yàlla na yàlla aar ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kàddu yi rafet na loolu mbàkk te am na solo. yal na yàlla gudd sa fan yàlla wéral ñuy siyaare bu baax mboolem kilifa fi teew Serigne Mamboor Mbàkke ngi ñuy toog mu Serigne Abdou mu Serigne Modou Xaban fekk boog Serigne Modou mu Serigne Mamboor Dendey Serigne Moustapha Mbàkke mu Serigne Xaali Maoba sëñ Abdou Karim mu sëñ Xaadim mu sëriñ gis naa bi sëñ Mouhamed Mbacke moom sëriñ Cheikh moom sëñ Mamadou Mountakha sëriñ Mountakha Mbacke moom sëriñ Modou Habib ak mboolem kilifa bi teew. sanat moom it ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ndax nag koo xam ni soxna see la leewu sëñ Mountakha tudd la tuddee la boppam nga yoroo ci keppaaram màgg dem góorgóorlu ba am njëriñ dellu si wat ci kër gi yàlla yàlla guddal sa fan maa ngi yow sa bàjjana am doon France bu ma nee jàmbaar nga rek. jàmbaar la yàlla na yàlla guddal sa fan Serigne Djili Mbacke mu Serigne Modou Mokhtar ñu ngi koy siyaare di ko gërëm Moustapha Messere jërëjëf taxawaay bi rafet na lool euh, Serigne Fallou Gueye nii ñoom ñooy waa Kàppu Gueye di mbokk soxna Bali Mountakha di mbokk soxna Maguette kon dañuy jéggul rek jébbal ko kàddu gi 3 minutes ñu def seen i témoignage Serigne si Abdoulaye Mbacke mu Serigne Cheikh Diène Fatma nee na ma kàddu gi jëlaat naa ko jox ko sëñ Koso mooy sunu mag te famille li sëñ Tuubaa ne woon nag wa individualis man yakunu akbara min koy xaawilu saamanan wa tara ka an yoroo mu mursalan li xaaja wax ji doon laaj ci kaw xaaja bisimilah. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ayuha alxuduuru alkiraamu almujtamiuun fi aasihi jalsati almubaraka min jamihi alafaax nuannihukum wa nuwajjihu ilaykum ala aasihi tahiyati tahibatil mubaraka fi aasiyil hawaan wa iya assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa bokki kilifa yi fi teew yépp noo ngi jël nuyoo bi ak siyaar bi di ko teg ci loxo suñu kilifa yi fi teew nga xam ni dinañ lott ci lim ñëpp nu ñu demee waaye bu ñu tuddee Cheikh Mouhamadul Muntaxa rek dina yóbbaale kilifa yi fi teew yëpp ndax ñun ñëpp ay njabootam lañu kon loola dina doy ci nuyoo kàddu yi ñuy sànni nag soxna si moo sàkku bi mu wootee lii mbokkam yee yëpp ngeen seen mbokki kàbbu gay la yoo xam ni ñi ci ëpp seen way juru góor mbaa seen way juru jigéen ak soxna màggat ñoo bokk lépp ah, bi mu leen woo nag lii mu yàgg leen cee woo di def faax boo xam ni da leen ci daan jàppale loola doon lu am solo loo xam ni nee na neex na ko lool ci nit ñi dikke kon war na bu mbooloo mi teewee ñu yëgal leen ni leen ànd naag lii muy def ak i bokkam waxtu wu ne lu mu yékkati ma ngi leen ciy bàyyi xel ñoom it delloo nañ ko seenu cant nu seen xol seddee ci la muy def ndax su fekkoon ni woowu leen mbaa boolewu leen ca it ñoom dinañu sagoo jëmmi sëñ Tuubaa ji mu doon ak bokk ñu bokk ak ñoom te liñ koy dégg lépp di lu baax loolu dina sedd suñu xol lool barki démb rek woo na nu nun famille bi yëpp ñu daje këram mu defal nu benn yu am solo yékkati ñaari million jox na ñu lépp lu ngeen topp toppati di ko dox rek maa ngi ci ànd ak yéen kon lii su amatee mu woo ma ni ma woo leen ñoom ñëpp ñu ñëw teew ne mu ni bëgg naa daal lépp lu may doxati ànd ko samay bokk te noonu mu ko waxee woon ni la koy doxee kon su kilifa yu baax yi teewee war nañ leen a yëgal ni leen sant nañu soxna si bu baax a baax donc koy ñaanal yàlla yàggal ko fi lool ba li mu yéenee liggéeyal Serigne baax yàlla far ko ba mu def ko ndax lii muy woote di infaax ak ndimbal ci wàlle daara yépp ku ñu saway jur kan la ñu sëñ sooy bu Mbàkke dañ naan war naa mën a am arab ba nag dafa werante dañ ne asukru waajib mu ne asukru yi la àla waajib nit ki def li war a def war na koo sant ñu ne ah déedéet daa def li war a def ñu ne ah kay ndax kooko boo ko santul cant dootu am wàccuwaay nit ku def lu war a def danga koy def wax jëf kon jërëjëf soxna Bali say bokk daal seedeel nañ la seen xol sedd na seedeel nañ ko kilifa yu baax yi fi teew yëpp ngir bañ a guddal rek yàlla na yàlla boole dimbali asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ sëñ Xaadim Mbàkke mu sëñ Baara mu sëñ Mor Soxna ñu ngi koy siyaare sëriñ Jiili Mbàkke pëf di moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm sëriñ Maam Seex Anta Baabu sëriñ Xaadim Jinne ak mbooleem ñu ñu àndal ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm sëriñ Xaadim Mbàkke ngi nee toog mu sëriñ Maam Mor moom Seex Muhammadu Muntaxa gërëm bu baax monsieur le maire Moussa Thioune di ko sant di ko gërëm déet maa ngi wax ànd France nga ne ma laa barke suñ Tuubaa yaa ma ko ñoo ngi koy siyaare ñoo koy sant ñoo ngi koy gërëm ñoo ngi koy ndokkeel di ko jox di wàccuwaayam di siyaare bu baax Serigne Koso bala maa jox suñu baab lay bay peex njabootu soxna Bali gii toog nga xam ni ñu ngi nii toog buñ tuddee Serigne Babacar Mbacke mii Serigne Youssou Yadd Serigne Mor Seck Serigne Ndiaye Abdoulaye Guèye Serigne Moussa Kouté mu soxna Bali sëñ ñang ba ci sëñ xaadim loo mee toog alaaju loo sëñ xaadim jeng ba ci ñi ci biti ñëpp te ne ci liggéey bi ñoom sëñ Moustapha Mbacke loo siñoor ñoom ñëpp nee na ñi ngi lay seereel ni ñi ngi sant bàjjan ñoo ngi koy gërëm ci ay taxawaayam sant gi nag li ci jiit bi nu ànd ñoom ci sëñ Touba waaye boole gi mu leen boole liggéey sëñ Touba bii nee na ñu ngi ko ciy sant ñu ngi ko ciy gërëm sunu baay Modou Gueye bu Tiwaawan ñoo ngi lay siyaare bu baax jox la sa wàccuwaay Serigne Jibi Diop mu sëñ Abdourahim Diop moom sëñ Massamba Diop Samb moo mi ngi toog Babacar Diallo jërëjëf app isbu nag bu ànd ak délégation isbu du bëgg nga ber ko di ko sant kon du jar muy gudd waaye yow ci biir kër gi mention spécial loo xam ne say engagement singulier yu particulier moo la ko jox ci kër gi yàlla na la yàlla taxaw yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla aar biig ci guddi sëñ Cheikh Mbacke solution dañoo nekk soxna Ba di waxtaan ci xasaay bi ñuy waxtaan ci xasida ñuy wax ci daaj yi ma ne ko daaj moom daaju sëñ Massamba am waaye ni sëñ Mayib di waxee ni sëñ Mbacke Fall di waxee ak ni sëñ Youssou Ndaw di waxee waxin yaa wute sëñ Abdou Diagne créé conservatoire mag mën nañu génnee baatam ber ko teg ne kenn ku ne ñu seppi sa baat ma ne ko kon kooku bisu penc bu ko kenn fayul ni xasida fay ko te ku ne xam ne ne xasida moom mën na boppam ndax sëñ bi dene zikri yi wa sukkuri yi wa ridwaani yi wa mahmadati yi bil xalbi wal jismi wal axlaami lillaay Baye Ablaye Mbaye Maamun yow da nga cee bokk am naa mbégte ci yow lool siyaar bu baax cheikh mouhamadul muntaha te nañu ko ñaanal mu yàgg fi xadd xuloo naag taw te seelu yëgul xadd xuloo naag taw te kay seelu yëgul fi mu nu fare ci jamono jii moom rek moo nu fi fare kon nag mbàkke noo ngi ñaan mu yàgg nuyu bu baax jàmbaar ji sëriñ koso nii sa rakk yi toogee ci suuf jàkkaarloog yow kenn koo ci bokkal ku nekk amul ñaaw njort ci yow ndax jukko kon ñu ngi lay siyaar Baye Ablaye damaa waaye sëñ Mor Ngiraan mii mm. day kenn ci soxna si doomi sëñ Mbay Ngiraan bu njaaree ci moom laa jëm si xel day fattu dëgg la sëñ moor ak sëñ Basiiru mii moom sëñ Mor Mbay Siise sëñ moor Mbay Siise ngiraan la tudd ñu ngi koy siyaare siyaar Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma Mbakke ñu ngi lay siyaar waxoon naa la ne yaay yoon wi nuyu monsieur le maire Cheikh xam naa turandoo da ci jël jukko yu bari waaye doon nga sa jëblaat ci am jom ak jub bu la gaa yi expecté bu ca ëllëg saa bu ñuy reer kenn ku ne day taf gémmiñam saakub ceeb sax doo ko jël Abdoulahad yàlla na yàlla jàppale la nuy njaboot gi fi nekk yépp bay Niass ñu ngi lay siyaar barki démb sëriñ Maye Niass dafa def lu rëy dafa woo bàyyi siis ak rakkam yëpp ni leen na ngeen ma wool peex damay liggéeyal Cheikh Ibrahima Niass Baye liggéey boo xam ne bii bala ko kenn yëg ne ko sëñ Muntaxa yëg ba noppi juróomi oto lañu ma jot jàmbaar ju baax ji sañ ko sa wax ko ko te sëñ bi du génn àllarba waaye soxna Bali dem ca moom mun ko ah peex de sañ na si man lu ne nañ ñëw ñu ñëw ma ànd ak ñoom mu leeral leen diggante Baye Niass digganteem ak Serigne Fallou ak bi Baye Niass di ñëw di gànn sëñ Modou Moustapha ñu ni teg du ko ah loolu sëñ bi leeral leen lépp ni leen pencum sëñ Bassirou ma ca Kaolack nag xàmmeewuma ko pencum Baye Niass moomee liggéey bii nag maa ciy jiitu danaa ko ànd ak yéen daal ni ma jekki nii ma daal di jekki mu dugg ci biir génn wan ne fanweeri million teg sama loxo ni ma nee ko maa ko tàmbalee ma xool ko bu yàgg man ko lislaam bu doonu nag ku ko rey fay la dañ la koo sàmm loo di sa toogaay bi mooy waral ni lislaam bi yépp bennoo nanu waaye kenn koo ci xarifte laal boo ci waxal jo bàyyi na sëñ Muntaxa xel sëñ Babacar Sy Mansour nee na man deel wax ni mooy man maay moom bëggal naa ko sa bopp lool te as gor la te sa ndënduwul diine ji fu diine bëtam xongee wala diine yi rek Seex Muntaxa jóg barki démb turki naar yi sore nañoo ñoom lool li ñuy wax daanaka duñ ko dégg téeméeri million la leen yónnee lii mooy lislaam bi ñaanal nag soxna Bally moo doon bàjjanam bi xam nga doomi sëñ Bamba du jeex doomi sëriñ Tuubaa yi fi nekkoon tàmbalee ko ca bàjjanam soxna Fat ja ba ci Cheikh soxna May defoon soxna May Kabir magi Cheikh Abdou Khadre Cheikh Sidiya Baba doomam dafa bind kaamil alxuraan mu indil ko sëriñ bi sëriñ bi yéem mbind mi lool mbind mi rafet mu ubaat kaamil bi waaye bi muy delloo kaamil bi mu ñaan ne na ko doom bu jigéen fayal cheikh si de baba yónnee ndaw nag njaareem soxna may sëriñ bi jox ko ñetti àndaari dugub mu wal ko soq ko def ceray balaay bindub kaamil teg ca kaw cere bi mbakke way naa bisimilah maam baax na Baye Ablaye Mbaye Peex kàddu yi am na solo lool noo ngi gërëm bu baax it ndax lii bi ci soxna si amee ndigalu sëriñ bi ba def ko am na loo xam ni état ko man son excellence président de la république monsieur Macky Sall noo ngi noo koy gërëm président de la république ñi ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal di sant bu baax premier ministre amis des finances ministère des affaires étrangères ak mboolem njaboot gi Adja Marème Faye Sall jërëjëf ak seen njabootu bopp gi ñoom it ñëpp yónnee nañ fi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm léegi nag presse bi ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw salaamaaleykum presse bi ñoo ngi leen di sant RFM mi ngi koy jàllale en ak mboolem presse bi fi ne waaye nag olof dane noo koog ñoo koog maa dañoo bokk fu ñu waaye bokkuñu nu mu ndax noo ko doo ca bala nga caa mën a ni ca ni ma ca da ngay dem ca ña ko nga ne leen ñu ne ca ne la ca nga door caa mën a ñoo ko nag ci nga bokk waaye bala nga caa mën a ne ca ni ma ca da ngay dem ca ña nga ko nga ne leen ñu ne ca ne la ca nga door caa mën a su boobaa loo ma ca du ko ndax da koy taxa maa ko nag mooy yëf yi da ngay ne ca ni ma ca te doo ko kenn ndax yaa ko académie mi nan nag moom day suñu bosu bopp booba nun waa kër gi noo ko lu ñu bëgg taxaw na ci def taxawaay yu am solo mu taxaa du ne guddi na du ne naaj na du ne bëccëg na man euh, waxo waxuma sax vidéo yi waaye photo yi ngay photo sëñ Muntaxa rek murid yi di ko bëggee rek loolu mën naa defar sa addina mën naa defar sa àllaaxira kon noo ngi lay sant noo ngi di la ñaanal yàlla gur sant wéral la Mamoun dafa am taalibe bu baax Antoine Diome ministre l'intérieur dafay taalibe Sëriñ Tuubaa di kenn ci soxna Bali waaye lépp léppam di sëriñ Saaliw mu waxoon ma ni naa ko santal soxna Bali Antoine Diome naa ko sant naa ko gërëm xamal ni yoonu murit nañu xam ne ñoom laa am lu ñu ne mànga ci ak jigéen ju baax ji nga tudd léegi. bàjjan nee na nga santal ko seex Souley Diagne. waaw Cheikh Souley Diagne day jàmbaar. barki démb dañu ma ne building yi moo ko tabax ma ne noppi na ci jàkka yeeg jumaa yi doo ko tabax. nee na ak sëñ Mouhamed Samb soldaaru sëñ Touba. ak sëñ Mouhamed Samb soldaaru sëñ Touba. ak sëñ papa papa Jamil Sarr. ak papa Jamil ak Cheikh Cheikh Mbaye Guèye mu sëñ Manoumbe. ak Cheikh Mbaye Guèye mu sëñ Manoumbe. ak sëñ Fallou Lo bu Kokki. ak sëñ Fallou Lo bu Kokki. alhamdulilah rabbil alamin والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والمكتوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi nuyu bokk yëpp bokk jullit yi fi teew yëpp bokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm ci turu soxna si di am mbégte si yéen ci bokk ak yéen jataay bi nga xam ne jataayu lislaam la jataayu jëf la jëfi lislaam ñu am ci mbégte ci bokk ko ak yéen bu baax ndax dafay loo xam ne yéene ju rafet ju rëy moo ko laal tukkee ci Soxna Bally ngir yéeneem ci jullit ñi yéeneem ci jaam yàlla yi yàlla far na ci ba lii mën ci am te mu xeeb ko lool ko xam ñëpp itam xam nañ ne jëf moom yàllaa ko bëggloo yàllaa ko na toog waaye nag moom ci boppam gisu ci boppam li mu wax mooy dañ ko santal mboolem mbokk yi mu ko bokkal ni mu ko bokkal ci ay bokkam ni mu ko bokkal ci ay bokki taalibeem ñu mu ko bokkal ci ay bokki jullitam waaye ñu mu ko bokkal ci ay bokki organisation moo xam ay ONG lañu attaque yi nga xam ne taxaw na fii léegi wax ñoom itam ñu ngi leen di nuyu bu baax waaye ñu ngi leen di sargal ñu ngi leen di jaajëfal ci seen jëf ji nga xam ne def nañ ko ci muassasatu Soxna Bally di leen gërëm ci loolu ndax jàkk yi ñu wax na tabax nañ ko ak euh, forage yi nga xam def nañ ko muy loo xam ne defal nañ ko Sëriñ Tuubaa waaye defal nañ ko Sëriñ Tuubaa bi ñu fi nekk Cheikh Mamadou Mountakha te mu jàpp ne lañ ko war lépp li war lépp moom la war ci jullit ñi ci murid bi kon lu ci waaye def loo sori sori jege nga loo jege jege sori sori woo yaa ci biir jëf yi bokk yi boppam yi nga xam ne léegi toog nañ fii ñoom ñëpp ñëw nañu wala ñi ñëpp ñëw itam ñi fi teew teewal seen alal bi nga xam ne teewuñu fi itam xam nañ ne seen yéene teew na ñoom ñëpp lu tàmbalee ci mbokk yi teew yëpp sëñ Abdou Lahad Gaïndé Fatma mi ngi ni toog jox nañ ko sax kàddu waaye mu ne googu xam na ne lépp benn la wala ñaari kàddu man boo waxoon sax danaa ko jox sama kàddu yëpp mu wax ko du ma dama doon wax sax ne nañu jox kàddu gi sëñ Xaadim tey Basiiru Xaadim awa ba ndax eh, ci digg bi la nag ba noppi dalim kenn mënut a wax ko weesu moo tax bu ma jël sama kàddu ma ci kàddoom waaye sëñ Fallu sama moo wax ne nañu ko sant santal ko bokk yi waaye santal ko sëñ Bas moom di rafetlu kàddu yi bu baax yow dina sant sa cant bopp ci diggante soññee bi nga soññee ak jëf ji nga jëf yëpp di ci sant bu baax di gërëm te noonu lañ koy defaat ci sëñ Abdou Lahad ngay ci lépp luñ soxla bàyyi koo xam-xam moom sunu bàyyi di sant ñu mu ànd ak di sant maire bi itam Abdou Lahad nga ak taxawaayam rafet ñu ko waxee léegi waaye lu ñu bëgg lim nag. lii juum yu muy gën a mat waaye li ñuy def rek mooy dañuy wane ne rek mboolem ñi nga xam ne teew nañ fi lépp ci ay mbokk ak mbokki taalibe ak mbokki boppam yi nga xam ne sax ñëw nañ fi ba jël fi kàddu yëpp ñu leen sant bu baax leen gërëm di leen ci itam masawu baax coono yi nga xam ne jànkoonte ak moom ba ñëw ci barab bi ku teewul ci jotaay bi itam. mën naa am sa daaw teew na fi ku mel ne Pape Demba bi tey li ñu ko waxee léegi ci seen ñas moom itam yi nga xam ne def nañ def nañ ci seen alal taxaw nañ ci def seen taxawaay mat sëkk te doonte teewuñu fi seen daw teewu fi yàlla xam na lépp ngi leen ci ci biir jant ci bu baax a baax li eh, ñaan lii nga xam ne moom. mel na ne ab tàmbali la ndax defoon nañ ko daaw jéeg naam def ko daaw naam waaye nag buñ sañoon itam ay at yu bare bare bare lay doon muy loo xamante ne dana taxaw jullit yi bu baax taxaw mbokk yi daara yi bu baax taxaw itam ci lislaam ji rawaat na jàkk yi ak ndox mi nga xam ne ñu koy ni wax nañ ko fi léegi yi itam day itam lu am solo loo xamante ne mënta ñàkk ci ak dund dund mënta ñàkk diine ñuy jullee ji mënta ñàkk lu ñuy jariñoo moo xam lu mel ni lii soxna Mbacke def na wala am ndox la jëlee ko feneen wala lu mën a doon loolu bu ko doomu aadama amul da dul mën a def warteefam ci jaamu yàlla gi lépp loo xam ne bu ko doomu aadama deful du mën a jaamu yàlla boo ko ca dimbalee dimbali nga diine dimbali nga lislaam dimbali nga nit ki itam ci warteefam kon loolu itam dañuy ñaan bu yàgg lool. ba nga xam ne nit ñi day ko mën a gën a jekku gën cee mën seen bopp lu ñu leen defal tey te di ko bi tam boo liggéey ñu mën ko ba yàlla def kenn bu nekk am loo mën a jàpp loo mën a dëgërloo loo mën a suturloo ba yàlla dimbale la sa jaamu yàlla mat na war a mate mel na war a mel toll na war a toll kon ñu bokk nit ñëpp ñaan ci loolu ndax loolu mooy yoon lislaam te mooy yoonu jàppalante bi ko waxee léegi rek wa taawanu alal birri wa taqwa wa laa taawanu alal ismi wal udwaan jooju alxuraan di wax rek mooy li ci nekk nit bu ñuy jàppalante di dimbalante dañoo war a jàppalante di dimbalante ci dëgg ak topp bu ko defee rek lépp aw yoon def baax te lii ca foofu rek day tege foofu rek la nekk kon ñu ñaan suñu borom saxal ko te dolli ko te dëgëral ko yàlla may nu koor jàmm ñu àggale ko ci jàmm te fekke waat ko yéen koor yu bare bari ànd ak jëf yu rëy yu am yu demee nii ak yu ko lool ci barke sëriñ bi ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi